wabarakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp nag ku ci nekk ak sa tour ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaro di leen béggee bu wér man la seen mbokk sénégalais seen compatriote Mollah gën ay ñëwaat di waxtaan ak yéen ci tolluwaayu réew mi voilà donc gars yi comme niñ ko waxee rek jub jubal Jubenti Sachi say say eksalopari ak salopari yi moy mission bi ñun dañuy jub di jubal waye nak buñu faté di Jubenti say say moy ñi nga xamni bëgg jigen yi rek taxawal ci jigen yi rek ak euh, def yi fu bandi salopari moy mooy Hmm? complotistes yi sàcc yi nag xam ngeen mooy détourner de deniers publics mooy délinquants fonciers yi fiscaux et financiers mooy ñooñ ñetti ñi délinquants fonciers fiscaux financiers mooy borom f yi voilà donc euh, duñ jóg nag ci di jubbanti euh, yéen ñëpp a gis coalition biir bu daw bi <laughs> tàmbali di am Sénégal <laughs> coalition ñamu mbaam bi saf sap bi tàmbalee am loolu rek da di woon ni yéen jeunes yi ku ci nekk war ngaa góorlu defar sa àdduna dund ba nga xam ni yàlla du la toroxalee benn xeetu toroxal ba amoo ngëm-ngëm amoo conviction amoo vision gëmoo dara ku ci nekk ci ñoom man de ñaan naa yàlla dund ba dee yàlla bu ma musa doon xalifa Sall bu ma naree xalku ba xalku yàlla bu ma xalkoo ni Khalifa Sall yàlla bu ma xalkoo ni waa PS yàlla bu ma xalkoo ni waa PDS bu ma naree yàlla bu ma may benn dund benn bës ma nar cee mel ni Khalifa Sall wala waa PS wala PDS wala AFP wala AGPADS wala APR yàlla naa du jour boobu yàlla naa faatu barke alxuraan bu ma ci amoon kenn ci samay waajur mu mel ni ñooñu billaahi dinaa ko posone bu ma nee may ma ndox naa wuti poson bu ci jaxase jox la ñu naan parce que ay nit lañ yoo xam ni nuisible pour la société parce que nit bu demee ba amoo conviction intérêt politique personnel jaral la lu ne ñi nga saaga démb nga ànd ak ñoom tey ñi nga saaga bërki démb nga jaxasoog ñoom lépp pour say intérêt loolu étape boobu mooy étape bu dëmm boo dégg ñu naan ñii dëmm la mooy koo xam ni amul benn gëm-gëm biiram jaral na ko lekk naan póotit lekk day mooy ñi ngeen gis ni coalition ñamu mbaam bi ngeen gis ñoo saagante dëmb xasante bërki démb tàmmante dëmm bërkaati dëmb tey ña nga ne yoo dañuy jaxasoo coalition biir buy daw coalition xusma ñàpp coalition coalition ñamu euh, coalition coalition euh, euh, njaxas coalition suppu mais lan lay lan lay incarné lan lañuy ñuy jàngal ñun moy ñu gor góorlu ba nga xam ni kenn ci ñun ci sa aduna do dem ba sanku ba yalla halak la nga muju mel ni ñom renier ses convictions renier ses gëm-gëm est-ce que mon nañ ko sax

noonu la bugaan mel ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen donc politique boobu ñu doon naxaate di yor seen discours di sóob di saale gëmuñu dara politik boobu mënatul jàll. gis nañ ci Abdou Diouf moo ñu ci nàmpal ñu feree ci ci Ablaye Wade mag doxee ci ci Ablaye euh, euh, Macky Sall donc amul benn doomu aadama boo xam ni yaakaar nga sa àdduna ni mun nga fee def ay manigance manipulation ba ñëw dox ci kaw sénégalais yi am li nga bëgg ñun sénégalais découvrir nañ ni ñooñu ay démon en chair lañ découvrir nañ ni ay jikko dëmm lañ yor découvrir nañ ni incha allah dinañ leen wan ni ñoo leen gën a yeewu ñoo leen gën a nekk nit ñoo leen ëpp xam-xam ñun ñoo leen ñun dinañ leen won loolu incha allah bu soobee yàlla lol lepp suba rek mu leer di wax bugan ken tëju ko lan la fi wax bañ ko wara tej sax ay sama sac bek cinema am gogo sama sac baangi fi sama dom bi rombu ma ngam lepp bugan xamna ni day fen te yalla xamna ni bugan day fen te bugan xamna ni yalla xamna ni day fen amul sac sac taxawu fa dara amul mais ay nit yo xamni ci fen la dox muy bugan muy Euh, yërim ñoom ñëpp ñoo bokk benn jikko fen sos njaaloo wëri caga kese la dunde dundee wallahi billahi yàlla xam na ni noon noonu lañ mel te seeni jabar yi yi ñu bàyyanteel xam na ni noonu lañu mel ku ci nekk nag muy bugaan muy ki bàyyi nga du mu dee dee dee diis jigéen ak ñeneen ñu ngay ëmbal ñi ngay biir nga yàq ak nangam nangam kër googu noonu ma gis sànq nii am na yor naa benn romb naa benn vidéo fi fi fi yërim nekk <laughs> foofu foofu foofu la nag foofu laa leen di wax foofu abattoir ay vidéo doy waar am na ci yërim ci boppam ak ay jigéen ak tubaab ne foofu foofu donc gis nga ñooñu tekkiwuñu dara ci kanamu yàlla duñu ci dara tekkiwuñ dara ci kanamu sénégalais yi sénégalais découvrir nañ leen amatuñ benn loo xam ni sénégalais gis nañ ko ci ñoom du dara lu dul fen manigance mais il faut ñoom ñu xam ni ñun ñun ñoo leen ëpp xel xaw nag lan moo ne seen bopp yi ba ñu jàpp ni ñoom mën nañu nax dof weesuwul toog ak say nawle foog ni yow la ngay wax lépp dañ koy gëm wala la ngay wax yépp dañuy jàpp ni dëgg la mais ñun kon seen existence est-ce que dina am sens suñu bopp yi kon nañ ko këppati sànni bu fekkee ñun suñu bopp yi ak lu suñu bàyyi daj ak ña buñ compté ñaata saaku ceeb la suñu bàyyi jënd ñaata temps la suñu yaay yàgg ci ci ci euh, waañ wi di togg di ñu jox ñuy lekk di naan ba day nii ni ñu day nii ak suñu xel ak lu ñu jàng ak lu ñu gëstu bugaan bugg ñu foowee wala benn Khalifa Sall bëgg ñu foowee wala benn euh, Yérim bëgg ñu foowee mais sincèrement loolu bu jàllee mooy wane ni yow demal nga delloo sa baay li mu rayante investir ko ci yow demal nga delloo ko ko amul njëriñ sa baay per investissement à perte la def bu jëlee li mu jënd ci saaku ceeb jox la lu mu fay ci courant lu mu fay ci ndox sa yaay lu mu yàgg ci tàngoor gi di togg di la jox yow bu fekkee ne mun nga tey ba toog tey benn bugaan di la foowee une minute Moi, wane vraiment investissement à perte la say waajur def sa existence amul sens sur terre on sait on peut discerner le vrai de l'ivraie romb nañ fofu talatuñ ci état bobu fi ko fi gis sénégalais dañoo yeewu et je vous le dis ni ma xolé sama bop la leen xolé gënuma leen a yeewu xam ngeen lu baax xam ngeen lu bon xam ngeen kuy fen xam ngeen kuy wax deug nekku leen ay nit yoo xam da ngeen di toog ñi leen di manipuler di leen fowe bugaan bi saaga démb ñëpp ñu mu saaga tey mi ngi noonu di nuyante ak ñoom togg ak ñoom coalition biir buy daw gëmuñu dara du ñuy gaañ du ñuy xarit du ñu dara intere moo leen moo leen lal kaa la ñuy dem ci élection kaa ñu ñuy boole coalition biir buy daw coalition suppu kanje coalition ñamu mbaam ñu dem rek xeexi ji amul conviction amul dara kaa la ñu do nga gis nga gis gétt gi gétt la xar mbaam fas nag bëy bukki gaynde coalition coalition boo xam ni mais table boo boo gis benn Bougane bu toog benn euh, euh, Pape euh, Djibril Fall toog benn xalifa Sall toog mais man dama gis ni dama gis ni ah lii dey gétt la ma xool kee ma ne bukkee ngi ne la de bukkee bu sangoo daru bëy xalifa Sall éy kee la kee rek ab golo la kan Bougane ab golo ngi taxaw donc ab gétt la rek bu am ay xar bëy mbam fakoser fas buki gaynde lepp a fofu ñu ne dañuy dem rëbbi ñu ne dañuy dem rëbbi <laughs> te ñom mun nañ lekkante seen biir de te dañuy lekkante seen biir ñu ne dañuy rëbbi de ñu ne dañuy rëbbi pour indi ñu bokk mais ñom seen biir dañuy lekkante parce que ñi ci bari ci ñom dañuy mun nañ lekkante ay parce que am ay carnivore ci biir ay herbivore lepp nga fa lolou gu dajaloo rek moy woné conviction amu fi ma je ni gëm dara principe doomu adam nak bu principe mom ak animal la parce que lan moñu wouté les animaux c'est la réflexion lolou moñu wouté animal animal ki dul xalat animal la c'est que Sénégal dañu japp ni nit nit le rek dul animal direct. xalat xel. moñu discerner de l'animal animal moñu séparer ak animal nit budul xala animal la wala nit bo xamné dañ ko performer dressé ko niñ ko jàngal rek lay def koku tam animal la parce que animaux yi légui dañ leen di dressé wala ne couche ñu mais dañuy dañuy wuyu nit c'est l'esprit qui mom moñu moñu différencier ak animal yi mais nit bu ñu togal mu tok jogal mu dox doxal mu dox un animal comme des animaux dressés donc nous avons gis table bi ñëpp esprit ou bu ou ou esprit wala conviction wala vision vision personnelle politique Nous leen sénégalais yi xam le 17 novembre ñoom dinañ xam ni sénégalais yi xam nañ ñoom dinañ xam ni sénégalais yi ñoo leen gën a yeewu parce que dinañ am vote sanction boo xam ni ku ci rëcc plus fort reste nga rëccee mooy un pour cent plus fort reste un pour cent ku ci rëcc ci ñoom coalition boobu plus fort reste nga am un pour cent te sénégalais won nañ leen ko ci élection présidentielle yi te dinañ leen ko wanaat incha allah ci élection législative yi di ñëw bu soobee yàlla dinañ xam ba xam ñoom ñoo gën a yeewu sénégalais wala sénégalais ñoo leen gën a yeewu ci élection législative yi wan nañ leen ko présidentielle gëmuñu ko ñu dajaloo waat coalition biir buy daw coalition ñamu mbaam coalition euh, nëbb ënn ñu ne dañuy dajaloo ñoom sénégalais leen won ni ak loo leen mën a def wiiri wiiri jaari ndaari ñun ngeen fii fekk dinañ xam ba xam seen bàyyee ñu gën wala seen yaayee ñu gën wala yéen yéenay xalaat ñun ñooy dof yi wala ñun ñooy xalaat yéenay dof yi loolu élection yaa ngi ñëw te dina ko leeral incha allah donc euh, yaakaar naa ni loolu moom soxla soxlawul ñu ci wax mais bés bu ñu ubbee aussi campagne électorale yi rek dinañ commencé waat rëbb dëmm bi ci campagne électorale yi parce que euh, campagne électorale la. kan fu mu nekk nii am na lu ñuy mun a wax am na lu ñu mënta wax am na parce que dañuy respecté euh, li nga xam ne mooy loi yi ak règlement yi. mais bés bu campagne élection électorale législative yi tàmbale dinañ ñëwaat ak rëbb dëmm. dina ñaar ci rëbb dëmm même bu dee dix jours la wala quinze jours dinañ def rëbb dëmm incha allah donc nañ jàppee leen ko noonu dañuy campagne rek nag campagne la dañuy campagne dañuy campagne ñun ñuy campagne ñun ñu toog fii di campagne ñun tamit ñun nag peuple bi moo ñu yitteel kese amul keneen donc ordre bi day revenir ci bu ñu déclenché campagne électorale yi incha allah dans moins de deux semaines ordre opération rëbb dëmm ci dëmm yooyu noonu toog foofu jëfuru infiro laqat jaaxu bi dajaloo foofu seen coalition biir buy daw seen coalition suppu kànja boobu seen coalition ñamu mbaam googu noonu danañ wax ak ñoom voilà ku ci nekk rek bu bu bu jeexee nag mu jeex mais dinañ leen topp ba seen buntu bàmmeel bu soobee yàlla waa écosystème boobu noonu xam pratique

say existence yëpp am ay doomu aadama yu taxaw ne yéen dañ leen def jaam ba ba nga di dee ñu lan leen leen def gars yi lan leen leen def pour pour mériter ça sàcc suñu alal PS sàcc suñuy milliards toroxal ñu daanu dajaloo demaat PDS jaxasoo ak waa PDS ñu ànd ñoom ñaar ñu xeex ñu 12 ans ñu reyanteeg ñoom ñu rey ñu daanu ñu jugatiwaat ca dem APR ñu fekkaat leen fa.

ne nañu lekk ala kulli al lekk ñu bëri ñu ñun ñu daanu ñu demati PDS am 12 ans muy ñaata muy 52 ans ñu lekk fa ba seen biiri fees ñu daane leen ñu jóge PDS demaat jaxasoo ak APR jiitewaat ñu 12 ans muy 64 ans 64 ans la yor di ñu lekk. di toroxal à la fin dañuy reyante ak ñoom jëlee leen fi ñu bëgg dem Pastef gars yi tëj seen bunt ñu ne ñoom dañuy dajaloo nag ñu ci bari bu ñu leen nangu loon heure bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi Pastef ba ci Pape Djibril Fall bi ku ci ñu bëri ci ñoom fëgg nañ buntu Pastef bi gaa yi tëj ñu xalaa ma ndir baajo xalaa xalaa doo fi jaar fu ñu dem xalaa ma ndir baajo ñu ne xalaa xalaa doo fi jaar ñu dajaloo ñoom seen biir ne léegi nag kaa la dem lekki sénégalais yi du nekk de infiro lakkat jaaxum dëmm lek lekkatu nit ñun doo leen ñu lek ñun doo leen ko wax te le peuple sénégalais dinañ wan dina leen wan ni ñun ñoo leen gëna yew un peuple très calme très discipliné qui écoute attentivement mais ils ont brisé les chaînes de l'écosystème bi nga xamni mo fi amone jeexna lolu c'est fini mais nak sénégalais ñom ñoom <laughs> xam nañ ni ñuy vote sanction seen wax bëriwul nak mais bés buñ joggé di nga gis ni ñoo la gëna yaw gëna yaw sa bay gëna yaw sa yaay lolu di gën ko gis donc ñi ngi dem ci ay élection législative ok euh benen côté bi may wax moy c'est normal Pastef dafa subir euh pour pour pour pour sax indi wat def ben flashback pour gars yi ñu ñu bëri ñu xamul def benn flashback euh, Pastef ñu ko créé 2014 Pastef parti bi nag bu ñu nee parti bu ñu doo créé mooy parti boo xam ne ñu ngi koy doo ko dajale toog nii amaguñu këyit dajalooguñ dara defaguñ dara amaguñ sax feuille amaguñ dara dañoo ay copains yu dajaloo ay gaayen la ñu def dara. en 2014 fekk na nag 2012 am alternance ñun ñu def ko ñun yi ñu nekkoon fii diriger mouvement citoyen diriger tout le peuple sénégalais tout le peuple sénégalais nek ci mbedd ma déplacé au jóge Espagne il y avait il y avait Tchad, y avait y avait Nit Dof y avait donc nous, nous diriger won combat citoyen bi n'y y avait ni Pastef personne n'a existé Nous ñu déclencher li nga xamni fibre patriotique bi sénégalais di len gennelo naaj bu tang di len woyloo di len taxawlo ci mbedd di len jangal resistance xalé yi yeb magge ci suñu loxo ci resistance lan moy resistance lan moy xex lan mom moy lacrymogène lan moy bëgg sa rew lan moy jital sama askan sama bakkan lan moy téwal sa gox ñu ñu matal ko région yeb di dox buñu paré 2012 ab Ablaye wàdd dem gisante Kémi Seba indi ko Sénégal pour mu contrer mouvement yi ñu def ñun man sama genre gi yaanaa maar ñeneen ak ñeneen mouvement yu ñu créé loolu moo indi woon Kémi Seba Ablaye Wade moo ko fi indi Sénégal pour mu contrer suñu mouvement yi far yàlla def ñu bokk benn vision mu ñëw wax panafricanisme Nous avons ko ah ñun fofu lañ nek mu souverainisme nous avons ko ñun nous lañ nek mu wax ci l'autodétermination donc bu mu on a trouvé que avons le même état d'esprit Nous, indi une urgence panafricaine Il n'y avait ni Sonko ni personne ñun ñoo néwon ci terrain bi nous tourner kilifa ngay gis nous ngay gis nit dof gis Abdou Karim terrain urgence panafricaine urgence panafricaine mo indi Kémi seba mo indi fi kemi seba bu mu mu urgence panafricaine urgence panafricaine c'est nak ci la Guy Marius fa la Guy Marissagne la Bentaleb Sow fa Bentaleb Sow fa la Djim fa la bu ñuy def ay rassemblement wala ay marche ñoom Hannibal bii nekk ay booy ndaw ay ñoom euh, booy Bentaleb nekk ay booy ndaw ay sumal booy Bentaleb di jóge université jàngi di ñëw ñii dajaloo ak ak kii nga xam ne mooy euh, booy gii ñu doon ñëw fa ak yeneen booy ak yeneen booy yoo xam ne xam ne naa seen kanam donc ñu ne ñoom ñu dem bokk urgence panafricaine ñun nag ñu nekk ci mouvement en tant que rappeur di xeex ak ñi nekk Y'en a marre ñii di xeex personnellement mais ku ci nekk am nga amoon benn objectif ak benn combat pour la nation C'est ce moo bolé. Si vous savez qui est na euh, Saba Macky Sall ñëw fa Macky Sall il a essayé d'intégrer le hip hop ci administration Nous refusons catégoriquement non on reste libre pour mon ok Macky Sall moo fi jëlee Kémi Seba ce jour-là vous avez vu j'étais à l'aéroport il y avait les Guy Marius Sagna il y avait les euh, les les, les Bentaleb il y avait il y avait il y avait l'urgence panafricaine ak ak euh, ndaw aussi, nga xam ne léegi moom mooy euh, boy boy boy boy boy, boy Cheikh Niass bu bu bu Walfadjiri moom tamit ci ci dirigeant ou urgence panafricaine yi la euh Babel Sow Babel Sow etc., etc. etc donc. amoon na idéologie bu fi nekk bi nga xam ni ki nga xam ni Macky Sall jëlal na fi Kémi ci la Sonko doo a ñëw Sonko ne warax génn di ñëw ci suñuy marche bon ndànk calmement comme nit boo xam ne nit bu nit boo xam ne la nit bu dal la doonul an amuloon gàngoor kenn xamu ko woon boobu c'était ay c'était en deux mille quinze 14 lañ ko 2015 2016 le Sonko commencé di ñew ci suñu rassemblement rassemblement bobu Kemi sa dem na ñëw ci suñu rassemblement ñu wax ay for faire de Falémé mu ñew fofu lañ commencé dégg sa yu jëloon micro mom euh ki nga xamné moy Sonko di wax ci affaire souveraineté di wax ci affaire panafricanisme ci le présenter parti bobu di euh, euh, parti euh, panafricain moom moi pasteur pasteur c'est est le patriote panafricain etc cetera donc pasteur loolu la signifié panafricain donc daf ñu fekk ñun ñu wax panafricanisme parce que Kémi Seba déjà ak ñun on parlait de pan def nañ marche pour euh, euh, Libye fi nga xam l' en Libye def nañ xeex nañ contre le franc CFA yoroon t-shirt yi mooy bu buñ Kémi Seba di taal billet bu 5000 bi di àbb briquet on était là-bas t-shirt yooyu ñoo ñuy def noonu defar naa ci yu bari jox kay nit yu koy sol donc da fekk na ben combat ñu am ko moy xex jële fi CFA bi euh, li nga xamne moy oligarchie bi jële fi oligarchie bi et cetera donc fekk na fi xex bobu lan motax ñu adhéré parce que dañu gis ni waji ño ñoo bokk benn état d'esprit Sonko dafa ñew fekk suñu wax mu wax même chose donc ñun dañu adhéré ci discours waji par rapport ak lim ñu fekk ñuy xex moi cefa mu ne waaw man mom bëss bu ma fi cefa dama ko fi ay peuple panafricain dañoo wara ñu ay souverainiste et cetera donc c'est le même discours C'est le discours que la Sonko porté ok ñu commencé donc lan avons ñu boole ak Sonko idéologie kenn faawu ko ci parce que déjà mom fi idéologiquement moo bolé ak mom ñu gis ni waa idéologiquement ñoko bok nga gis ay Karim di dem ci interview muy wax ak Karim di ko souverainisme ay ay waxu euh, autosuffisance etc cetera interview donc c'était pas son n'était pas ben amugul forme accessibilité partout gars dañ doon dugg di genn des mu garde corps ba mu fekkee ñiy xeex waxu pétrole gaz yoy noonu Y'en a marre doon ko organiser j'étais là-bas ak ñeneen ak ñeneen Sonko dañ ko doon jox muy wax muy wax ci pétrole ak gaz comme ñeneen ak ñeneen sa yu ñëwoon bu ñewé ñu jox ko mu wax ñu ñu doon gis ne il est pertinent il est très très très pertinent bobu kenn bokul won ci partem ci ñi leen di wax ni mais ñu gis ni waa il est pertinent et puis il maîtrise son sujet nga xamni ne waa ji yoon la pour ñun ñu jàllale ci suñu message pour ñun ñu jàllale ci suñu message n'est-ce pas euh, donc nous lañ commencé di déglu donc lan moo ñu booleeg lan moo ñu booleeg mom moy même idéologie moo ñu booleeg mom donc euh, idéologie fi nga xamné mom ñun mom lañ doon doon xeexee dafa melni sa yu dar amé rek

maintenant je vous explique quelque chose Je suis un patriote euh, panafricain ou bien je pense je euh, jàppuma mais mais hein, attends attends attends attends attends nga xam Pastef parce que Pastef nak ci ñun idéologie ñom euh wa mi ngi patriote africain patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Patriote africain du Sénégal. Pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc, concept, et concept, yi moo ñu boole tak dem donc beaucoup nañ ci première personne yu soutenir Ousmane Sonko première personne qui ko soutenir Nous rappeur yi beaucoup nañ ci mouvement am en 2000 16, loolu lu di wax en 2016 par décret présidentiel Macky Sall bu mu fi jëlee Kémi Seba dàq ki nga xamni moy Ousmane Sonko Moy woné ni chaque jour neubi bu commencé formé wu ñun ñun ñu dara lu ñu rassemblé dañ doon xex Macky Sall gis na ni rap bi moo ko fi jëlee Ablaye Wade donc il avait vraiment peur de ce mouvement de révolte et d'indignation populaire bu nekk ci mbéd moy ñun donc nan lay def pour casser dynamique bobu noonu loolu motax mu jëlee fi Kémi Seba mu jëlee fi Kémi Seba Sonko ñëw bu Sonko ñëwee commencé di dem ci marché et cetera et cetera di génn di commencé di ñëw ci suñu marché di wax discours bi ci la ko Macky Sall jëlee fi en 2016 par décret présidentiel manquement au devoir de réserve donc Sonko commencé ñëw li li bo bi bi patriote dajo Pastef dajaloowul woon de pour mu faire def manquement au devoir de réserve de déedéet suñuy manifestation yi la doon des di discours di wax ñu ñu koy jox micro muy expliquer Macky Sall jàpp ni ah comme que monsieur Ba dem na waa ji rassembler cette jeunesse là pour di révolutionner wu loolu moo nous mu dàq impôt et domaine 2016 bu mu ko 2016, 2016 y avait ki nga xam ni le président de la république muy Bassirou Diomaye Faye

ci la yàlla def ñu nier ñu nier ay relation yu personnel ma bokkoon ci gars yu mu gën a jege boobu kenn xamu leen nag kenn xamugu leen wala ku leen xam tam matuñu sang matuñu sang te dinaa leen woon lan moo tax ma leen ñu leen xamoon matuñu sang jamono jooju ñun ñu ngi ànd ak ñoom ci benn concept foofu laa ko xamee mu jël sama numéro ma jël numéro mu jënd sama CD ñuy waxtaan saa yu wàccee impôt domaine woo ma chaque six heures lundi ba dimanche chaque six heures jomaay dafa mel ni woon man rek maa ne woon gaynam chaque six heures jomaay mappale ma koy <laughs> ba ko ci ñu bari bugg naa gis waa yaanaa maar ma orienté ko jox ko numéro malal mu dem ba géejawaay gisanteeg malal yóbbu fii ma orienté man maa ko doon orienté

boobu yéen ñu ci quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi xamu leen ko ñun la doon fréquenté ñu dàq ko par décret boobu yàgg naa ko gis muy muy ñëw ci waxtaan et cetera et cetera gënoon nekk jeune tamit ok c'était en 2016 ma découvrir man Pastef yàgguma xam <laughs> waa Pastef de ñaar ñi laa ci xamoon Sonko ak Jomaay Jomaay yàlla ñu boole mu nekk gaayen mu may woo suba ngoon guddee ba ñuy waxtaan

non, dénonciation au niveau des impôts et domaines, etc., etc. Mais il venait chez nous. Il venait chez nous. Il venait chez nous. On a été les premiers à lui donner le micro. il faut demander à son il peut te le dire. On a été les premiers à lui donner le micro. Tu sais une conférence, tu sais une manifestation. Sonko rek qui rappe la jaaree rapperie. yi moo jox Rapperie. Qui la on a été les premiers à lui à lui tendre le micro on a été le premier à l'écouter parce que même si a wax ay waxu domaine aussi <laughs> ci champ civil bi la ko doon ci ñun la domaine di wax ci ñun la conférence urgence panafricaine ñom Guy France frappe dégage urgence panafricaine mo fi ne woon yaanaa maa ak ay mouvement de révolte et d'indignation ak ay rappeurs yo xamni ay kaaskat lañ ñoo fi nekkoon donc fofu la micro am jaaree du partem defeewu ko ci partem donc ci ñun ñoko don jox micro donc loolu yëpp c'est pas important damay jall rek dama len bugg dama len bugg expliquer jaar-jaar jaar-jaar rek motax may wax li mais loolu c'est pas important donc en 2016 kii nga xamni mom moy jomay Diomaye commencé wër ci média yi di wax man ñaar ñooñu laa ci xamoon maanaam ñeneen ñi maa ngi leen xamee xaw ma sax kañ lañ bokk mais maa ngi xam ñeneen ñëpp ci affaire u 2021 laa leen xam El Malick 2021 laa dégg premier tour am El Malick ñu ma ne kuy ñu ne ma oh, kii la ci laa dégg ay Abbas ñooñu ñëpp ex ku dul Sonko ak Jomaay ñun xamuñu leen woon doon ñu leen gis wala ràññewuñ leen woon ci dara donc loolu yëpp après lañ xëy na même nekkoon nañ fa mais feeñuñu woon ci dara. donc ñaar ñi ñoo fi nekkoon mooy Sonko ak Jomaay ñi moom xam nañ leen depuis ba première conférence ba mu génnee livre am première conférence bi ñu ci baari maa leen sensibiliser parce que Jomaay moo ma ne Sonko day def conférence fële ca euh, euh, obélisque moom Jomaay moo ma ko yëgal na ma dama bëggoon nga jàpp ci ma wax ko ñoom Hamza wax ko wax ñoom Siré wax ko yi baari la leen booy dem leen man na daw ma man nak sincèrement demoon may ñu ci bari waxna naa leen ñu dem moy première fois Sonko nak commencé di génn ok mais dañuy continuer 2017 Sonko dem ci ay élections législatives 2017 balaa ngaa xamni sonko am ay nit 2017 bu mu ci élection législative 1 la 1 la amone plus fort reste le retier plus fort reste. donc kon ba 2017 Pastef amagul tolloogul fenn 2017 Sonko bu mu duggee assemblée nationale plus fort reste la demee moom laa doon wax démb Abdou Karim ku xool ci Sonko looy def gëm ko bu lu yàgg yee mu gëm loo looy def gëm ko bu yàggee yàlla fekk si la démb rek maa ngi koy wax Abdou ne ko li nga nekk gëm ko contre vents et marées ak le ñu la diaboliser lu wax Sonko 1 à la tambale. Je ne na en 2017 Sonko 1 à la tambale. Ils mi 56 57 di donc le looy dugg gëm ko boo ko gëmee à lay du la téye démb laa ko jox exemple bii ci euh, ci Sonko donc 1 à la en 2017 nous gagnons livre pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation n'est-ce pas exactement c'est ça qu'on a dit euh, euh, 2016 2016 euh, euh, am ñu ñu ñu commencé nous parce que bëriwuloon ma ne nous xamuñu le nom parce que ci suuf lañ nekkoon ñoom ñun nous leen woon on connaissait son quoi Diomaye ñoom moom xamme man voilà ñenn ñi bokk ma Pastef donc mënuma xam ñu fa nekkoon mais ñi feeñoon su les les noirs durs ils ont fait nek ci kaw di ñew ci seigne marche yeeg seigne rassemblement yi y avait Sonko et Diomaye et souvent Sonko seulement donc 2017 mais Sonko bu mu dem ci législative 1 là mu dem ci élection présidentielle après lañ ci tek moy 2019 mo jël deuxième sax mais dañ ko sacc mo jël deuxième mais dañ ko sacc def ko troisième mu am lan 15% n'est-ce pas Quand 1% ba dem 15% 2019 digënté bobu nak moy vrai parcours du combattant bu Ousmane Sonko digënté 2017 ak 2017 Sonko était comme si comme si comme ça 15% comme si comme ça juk daanu juk daanu xam nga lan mo tal Sonko 2021 moko tal moy machination bobu ñu défon pour éliminer mooy li nga xam ni gouvernement bi loolu moo ko taal dañ ko buggoon yàqal far looloo ko taal Macky sàll moo taal moom moo éliminé Karim Wade gars yi sax ñuy wax naan lu tax Sonko am 15 pour cent parce que Karim Wade demul Khalifa sàll demul mais buñ demoon Sonko du laal 15 pour cent ñu ne boo bu boobaa euh, Khalifa Sall day jël ci 15 yi ak ak ak Karim Wade donc lu mu nekkoon cinq cinq parti ñoo fa newoon P PDS. Euh, Euh, du moins euh, euh, APR mo fa nekkone Idrissa Seck Sonko ak Pire etc etc donc il y avait que cinq parties. donc amna nenañ amna ñu né ci ci manam ci bagage nenañ bu fekkone khalifa dafa Donc, ak ké du am sax 15% OK c'est ce wax la ñom whatever de toute façon 1% a 1% le Sonko tambalé dem 15% C'est l'élection présidentielle de la Bali lolu nous ñu ñew de ñu de sénégalais mais si tambalé nak sen machination bobu non ne dañ tentative de liquidation politique lolu mortale. tal Sonko Sonko lepp mi ngi ko en ci 2021 donc ñi philosophie lañ lañ lañ 2021. Sonko am na nous xam concept ak philosophie idéologie mais fa la nag mu bi ñew ndiraan gi teul lool top ci bu bu bu bu bu génnee partout donc lool discours am ak élégance am ak éloquence am ba paré subir injustice machination bobu non lool motax comme sénégalais bëggu ñu koy toroxal gor toroxal doomu aadama ñum ñëpp japp ñum ñëpp commencé feul de gauche à droite région yi etc., etc. donc nga gis ni crescendo le son ko ñëwé crescendo Il faut déplacer di ñew di ñew di ñew di ñew à partir d'acquérir connaissance ak expérience ñu ci bari ci injustice bobu lañ la ñu lañ ko topé ci lañ ko foyee ci lañ ñëwee soutenir ko ci lañ ñëwee soutenir ko muy avancé ba tay jii mu am plus de 50, 56 mais maintenant tay nous dund ay ñu subir ay injustice ay sàcc gis ngeen sax ba ci Pastef am na ñu sàccoon fii ay ay fiche dem jaayee donc c'est tout à fait normal Pastef ne ñoom une parti comme subir nañ ay Cuba léegi nag parti il faut que nga am une carte il faut nga am une carte ñu ñu investir c'est leur droit c'est leur droit c'est leur droit xëy na ñoom euh, dañ ne dañ ne duma topp diw dafa fekk foo ko fu ngeen fu ngeen jëm soriwul donc si li ñu si tax na ñuy ñuy ñuy daw ñu ñëpp mais ñuy moytu ñuy ñuy calculer ok et on est d'accord parti bi ñom euh, sympathisants Malgré malgré sympathisants c'est des combattants man de man bu doon conseiller bu may am pour jox Sonko dama nan ko sa parti parce que parti bi ne veut pas dire que bokk fa principe mo la fa ah. am nañu ci parti bi gëmuñu amuñu amuñu concept amuñu philosophie ah. bu la kon kon représentant passif du satch ay fiches diko yobul Macky Sall lu ñenn ñi bëgg a loo ñenn ñi comme quoi que non na na na na gere parti bi parti bi am na ay dinosaure parti bi am na ay dëmm parti bi am na ay lekkatu nit parti bi ay sénégalais fa nekk am na ñoo xam ne dañoo daa seen bëñ pour doon dara donc parti boobu du parti yàlla du parti yenn du parti xut bu samaan ay sénégalais fa ne donc bu ngeen ne seen partisans yi ñoom noonu nañ kii parti bi naa nga parti bi ay dëmm fa ay lekk lekkatu nit ak fa ay ñuy trahir nga fa fees fa tet donc loolu moom bu leen ñu bugg a gëmloo ni waa parti bi ah, te ay non non non am na ñu gëmul dara ñu fane ñoo xam ni Macky Sall sax leen tane ñu ngi si parti boobu ay sénégalais la ñaa ah, yu gënneew ci këru sénégalais yi ñëw toog am na ñoo xam ne ñi ngi foofu xaalis la ñu wër ñii poste la ñu wër ñii lu ñu lekk la ñu wër ñii lépp nga fa lépp biir booy daaw lépp nga fa am nañu baax am nañu bon am nañu yées loolu il faut ngeen accepter ko parce que c'est des sénégalais ah duñu ay extraterrestres yu jóge ci asamaan si ñëw euh, Pastef naa nga daal ku nekk mun nga yor sa carte bokk ca donc loolu moom bu leen ñu fooyee bu leen ñu musa fooyee ci wax yooyu bëgg ñu gëmloo ni euh, sympathisants yi ñoom euh, dañ leen di moytu waa parti bi lañ jël parti bi am na dëmm am na lekkat nit am na am na nooxóor am na ñu gën a yées Macky Sall boo leen joxoon dara ñu warax ko wan na am na ci parti Pastef bi am na ñu gëm dara ñu ngi ci parti bi parce que jënd carte defu la defu defu la nga baax dem ñu Pastef taxaw nga dem jënd sa carte defu la baax donc bu ñu la investir tamit xëy na yow mun ngaa trahir n'importe quel moment donc loolu man tey bu ma amoon lu may wax Sonko di ko conseil dama naan ko am na ay sympathisants jàmbaar yu gën a jàmbaare say parti foofu ñu jën gën a jàmbaare say militant bàyyi leen xel ñu ngi Saint-Louis

donc y a des sympathisants yu sont crédible ay militants y a des sympathisants yu gën a ay militants yu yu Pastef y ay sympathisants yu projet que ay militants y a des sympathisants yu conceptualiser un état d'esprit patriotique que les militants militants alimentaires donc si a tëj sa buntu ne parti une carte

wala bu ñi ñi ñi voté ñi may voté lañ am carte Pastef doo am dix pour cent parce que Sénégalais yi 99 pour cent yi amuñu carte bokkuñu Pastef te lu nekk daj nañ ko pour projet bi. mun nga ne nag ok dinaa ko ubbil ñëpp mais tamit damay xool damay damay def benn background check wala damay xool <laughs> mun naa jël nag ay sympathisants parce que sympathisant gën na gën na militant.

amna ko xamni Saint-Louis bokul Pastef mais mi adhéré na ci idéologie bi bo demone jël ko Saint-Louis mu jiital mu na la indil nit yu bari parce que bu duggé Saint-Louis dom adam yu bari ño ñoo ñoo ñoo ko sopp xam nit ki amna principe amna idéologie bëgg na mbir yi fonk na Sonko respect na et cetera et cetera koku boko joxé lool mu na la mu na la indil plus mu na la indil plus mais nag ànduma ci comme coalition yii coalition yii ànduma ci parce que coalition yi xam lan la indi transhumance comme tey nga ne jomaay président mais jomaay président lépp nga fa ay APR ñi nga fa jomaay président ay PDS nga fa ay AJ PADS nga fa mais jomaay président est-ce que mun ngaa wax ni kii kii concept moo ko indi wala kii philosophie mais joxe président am na koo xam ne 11 ans la xeex sañu sañu sañu combat bi benn at mu ñëw rek adhéré mais tey doon dara mais mais mais loolu c'est une injustice koo xam ni 11 ko xeex un an la def joxe président gars yi falu ñu fal ko mais loolu amul lu ko gën a metti <laughs> gars yi amul lu ko gën a metti au fond da nga nan ni eh, lan la quoi lan motax ki ma xex ko fi 11 ans lu ma yàqul amul lu ma waxul amul moins 2 ans mu ñeu adhérer fi rek tey génn am na ñoo xam ni dama wax naa ko barki dem ben way bu ñuy wax nonu ma ne ko am na ñoo xam ne moom seen sëriñ boo bëggee am dara damal seen serigne ñaanal la <laughs> mu ne ma kan ma ne ko Moustapha Niass mune wa ma ko waw mu ne kan ma ko Mimi Touré ñaar ñoon ku ay sëriñ yu baax lañ yor ay sëriñ yu baax Moustapha Niass la tambalé ci ablay wad la galajam toj galajam régime du la ravagé bum la lek mustapha Niass ma ko gàllaajam sëriñ bi xamna xamna xam bi dafa dé mustapha si 2024 bi le sëriñam dé mais Mimi Touré douze la ñu xeex lu ñu yàkkul amul mais moins d'un an mu génn fële par rébellion tak ñëw Sonko Jomaay faf tey tey mi ngi ànd ak seen président bi di wéy yow mi xeex onze ans nga xeex moom mu onze ans mi ngi ci mi ngi ci mi mi ngi féex onze ans di lekk di naan di te moins d'un ma ne ko boo demee ci sëriñ Mimi Touré na la wax sëriñam boo ko bu la ñaanalee doo doo torox <laughs> parce que Mimi Touré moom ku dëkk bi moom lu waay di wax Mimi Touré sëriñam ku aay la onze ans nga xeex pouvoir mooy deux ans nga ñëw toogaat <laughs> ci wetu président bi non yow sub sëriñ baax na nee naa leen ma ne waa ji demal ñu ñaana la Moustapha Niass sëriñam xëy na daa dee mais mais mu renouvelé wu ko ak ki nga xam ni mooy euh, Mimi Touré parce que seen sëriñ baax na trop <laughs> mu ne ma mu ree ba sonn ne ma ma ne ko waa ñii seen sëriñ ñu baax lañ parce que man munu ñoo xam ne ci pouvoir rek la ñuy dee onze ans un an moins deux ans tak nga ñëwaat ci pouvoir toogaat yow daal pouvoir rek pouvoir pouvoir pouvoir pouvoir pouvoir pouvoir pouvoir léegi nag loolu moo jaxasoo ci coalition jomaay coalition jomaay bi biir bu daw la woon ñi kii ne man bu ma wóoroon ni bu ma defaree fii nii autour à péage ilaa Touba doo leen votel Sall kon du ma ko defar mais kooku mën a farax ñëw ci so ci coalition jomaay kooku mu ne moom bu defaroon autoroute comme autoroute xaalis bàyyama ñu jox ko xaalis askan wi jox ko xaalis mu saaga sa askan jox ko seen xaalis seen taxe seen i impôt mu dajale ko defar autoroute élection yi ne boo bu ma xamoon ni doo leen votel yéen waa Touba doo leen votel Macky Sall du ma fi defar autoroute bi comme autoroute bàyyam mais kooku mi mi ngi mi ngi mi ngi coalition Sonko Diomaye donc tous ces gens-là avec tout le lu ñu teg sénégalais yi naqar yi sénégalais yi métti li ñu sénégalais yi pour un coup de jeu politique taf taf taf dañuy toogaat dañuy ñëw taxawaat yow mi nga xam nga gëm depuis euh, since day one nga gëm ko nekk ci mais kooku day ñëw toog sa kaw tey day ñëw toog sa kaw kooku injustice la loolu injustice la injustice bu énormissime la ci nit buy rey am conviction di xeex di xeex benn waay di xeex ak waa ji di xeex ak waa ji ba benn moment fa rek waa ji ñëw moins de un an taxaw sa kaw yii ay pratique politicienne la yoo xam ni man ku ma ne woon en deux mille vingt quatre dina fi am du ma gëm ay pratique politicienne yoo xam ni ku ma ne woon mun na am ci deux du naa dund àdduna ba deux mille vingt quatre muy am fii du gëm ba léegi mi am te lo xamne neexul kenn képp kuy gor neexula bu ko sa bàyyi indi won sax du la neex waxuma la Sonko wala Diomaye wala keneen man day je dis ce que je sens lolou lolou man je trouve que c'est une injustice je trouve que c'est une injustice énormissime énormissime des fois nit bu xoolee du sax bëggu politique day seexlu politique waaye naan politique dafa salte parce que dangay xeex ak nit bay bëgg a dee en moins deux ans kooku ñëw trans trans euh, euh, euh, transhumé teg ñëw jiitawaat la yow quoi doo comprendre da ngay mel ni ci diggante boobu dangaa ngaa nga xëm imagine toi nga jàmmarloog Macky makki sàll Touré nekk fa kii kii kii Moussa Diop nekk fa ngay reyante ak ñoom di reyante ak ñoom mooy deux nga mel ni ko xam yow rek gisaat la ñu toog ci kaw nga ne non mais nu mu demee nii mais kii man ak moom ñoo doon reyante fii nga nga tourné gis leen ci kaw ñu lay jiite nga tourné gis leen ñu nekk ci ci kaw di la ji da nga tu te demande mais attends mais man maa dof wala diggante ba du ma xam wala mais ñi laa doon xeexal balaa ngaa xam loolu demal ci ñi dee nga nga gas gas seen bàmmeel balaa ñoo dee

N'est-ce pas mais maintenant les ñu gis ay nit yoo xam ni génn nañ ils moo indi sax waxtaan bi génn nañ Abdou Karim Gueye ku ci mel ni euh, Pape Abdoulaye Touré am gars yi leen di critiquer ñii di saga saaga ñii di wax mais c'est un manque de respect notoire mais man mënu ma comprendre koo xam ni nga accepter Mimi Touré ne doo accepter Karim Gueye mënu ma comprendre loolu yow nga accepter Mimi Touré moom lu mu def baax na mbaa yàlla mais nga nga bëgg a dingat Karim Gueye mais yow nafaq fait. nga yow do, do nit ku bax. tant que Karim Gueye mo gën Mimitouré. Touré tant que Karim Gueye tant que Karim Gueye mo gën Mimitouré. askan wi tey bu buñ doon wax tànk Karim Gueye moo gën Mimi Touré yow mais yow tey mun nga wax Mimi Touré lépp Mimi Touré baax na jub na fàtte nga sa lépp den nga lépp la nga doon wax tey Mimi Touré moo gën ci àdduna yàlla moom la yàlla sax moo ko tufli mu ñëw wàcc du bokk ci du nit xam-xam kese la du yow yow garaawul yow moom danga nga <laughs> a amoo ngëm-ngëm de toute façon yow yow yow eh, weesu woo animal bu buñ teg ay reew yow lu waay teg rek yow <laughs> gëm nga sa baay sax gëmoo ay waxam doo calculer waxu yàlla sax calculer woo yow daal buñ la tegaloon mais bu ñu fekkee Pastef dañoo tëj seen buntu ne ay mili eh, ay militant lañ soxla seen sympathisant Karim Gueye am ambition am choix bu ko doon député du dem mais wax leen ma ban ban délit la ko Karim Gueye xeex ànd ak Pastef xeex bay bëgg a dee Pastef ne ñun lu ñu dund doy na dem tëj seen bunt pour les les sympathisants mais <laughs> kon Karim day day toog moom mooy ku ndayam baaxul quoi moom moom bëggul dara askanam quoi mais lu Karim wax mooy dëgg kenn gënul wér Karim Karim Gueye wérul <laughs> waaye respecté la nit yi respecter le yi donc boo tëjee fii mais Karim ngay wut Ce c'est pas un respect tey nga bëgg a taxaw bëgg a Karim Non, du c'est son droit le plus absolu Karim a le droit ak li muy ak nu Karim xam milliards d'assemblée nationale Karim représentera le peuple comme un Guy Marius qui n'aimerait pas voir Karim Karim à l'Assemblée nationale kan la mais yow kon au Sénégal kon yow au Sénégal donc c'est pas droit am la choix Nadem, et on lui souhaite le meilleur moi j'aimerais voir un Karim Xrum à l'Assemblée nationale à côté de Guy Marius jambar la nit ku dëggu la du nafaq du fenkat amul complexe ci doomu aadama yalla moko yitel amul ragalul nit yalla la ragal tay j'aimerais voir un Karim khoukha à l'Assemblée nationale en tant que nit bu bëgg askanam fan la fan fan lan mo lan mo yéeme ci loolu il sait lire il sait écrire il sait défendre des principes

mais noonu la amee droit il a ce droit là te wax naa ko ko nee naa ko Karim mu ne wax ne ko da gis nga Sonko un pour tàmbale bu ko tàmbalee plus fort reste la demee gëmal rek sénégalais nag du la gëm loolu nag yow yàlla moo ko bind ci sénégalais sénégalais dula la gëm mais yow yaay gëm sa bopp proud to be yourself proud about yourself nga gëm li ngay def nekk ci di accéléré di dem gis nga da nga leen di gis tourné rek gis junni doomu aadama yu la topp loolu yàlla moo ko xaatimee bi sénégalais c'est l'homo sénégalensis sénégalais doo jëg mu gëm la yaay def luñ la gëmee yaay def luñ la gëmee boo gëmee sa bopp jàppal ni kenn jëlal Sénégal multiplié ko par jàppal kenn gëmu la nekkal nekk ci nekk ci nekk di nga di gis junni junni doomu aadama yu la topp maa la wax loolu gëmal li nga gëm nekk ci amal principe am idéologie jëlal yàlla jiital point bul gis dara bul gis nit bul wër nit bul xoolal dama ne dañ lay fekk si loolu man dama gëm loolu dañ lay fekk si te loolu tey jàppal de bindal de day am de dañ ngeen da ngeen koy fekk si ci nii mbaa ci de da koy fekk si bu bàyyiwul yoonam da ngeen koy fekk si maa ko waat ci daraje alxuraan da ngeen koy fekk si par force lu leen bub lu leen buddi di leen indi sax doo leen ko xam da leen koy da fekk si donc si vous avez fait, vous pouvez mais pas Abdoulaye Touré aussi dama ne dis, amul droit ak am ambition quoi Karim ne non nous war nañ dem assemblée am non non non kon dem quoi <laughs> Sénégal a dictature ak ñoo mën a nappaate <laughs> Sénégal ak ñoo mën a nappaate moo tax wax dara te dañ lay prendre vite fait dañ lay pakkalal bañal bu la bul nangu kenn pakata la bul nangu benn làmmiñ takk la dëgëral fit taxaw di këdd di wéy man loolu la gëm man loolu laa musa gëm dara munuma téye c'est man du ma du géej laa du du doo naan quoi doo naan toog nii na toog non non non géej laa bopp naan ma ma defaat nii vague yi di ñëw doo comprendre donc Karim am na sa droit là <laughs> bokkul Pastef amul carte bëgg doon dem assemblée nationale am ñu taxaw bu ko jël ay vidéo na <laughs> war mooy dem par force mooy dem par force mooy dem par force doole mbaam tout le peuple est avec lui Pape Abdoulaye Touré bokkul Pastef amul këyitu Pastef amul carte Pastef ñu ne warul am ambition quoi <laughs> mais Sénégal gars yi dëkkum nappaate dëgg la nag da gis ku toog nii rek xoolal socc bëñum rek comment bu la napp quoi non war warax ko teg damal bu fekkee Pape Abdoulaye Touré da war a dem ci assemblée nationale da ngay dem ci assemblée nationale gëm leen li ngeen di def nekk leen ci dëggal leen seen bopp yàlla dëggal leen loolu mooy dëgg te billaahi

pa pap euh, pap lan pap jonne journaliste bi mais plus fort reste la demee <laughs> mais euh, suba euh, pap Abdoulaye Touré mun na fa demee plus fort reste kenen keneen mun na fa demee plus fort reste donc voilà donc dal nañ gëm sen bop nek ci luñ nek bu len kenn kenn kenn décourager am nañ ci droit sen choix la nañ dem nañ dem gëm sen bop point té bu ko défé yalla dina len jàppale voilà, il y aura plein de gens qui vont voter euh, euh par et euh, euh, qui Abdou Karim Gueye voilà patay mom da jeex quoi Tok fu nga sur internet ñu ci bari sax amuñu sax carte ah wa yow non tout sauf nangam <laughs> non <laughs> donc voilà man lolu wax ko Karim et je le dis à Touré sa ci waa Pastef tëj nañ seen i liste nee nañ ñoom seen i militants la ñuy jël damal damal gëm ko voilà man nag à ce qui m'engage je veux pas être député gis naa ñu bari ñu ñëw ci man depuis yàgg na nag yàgg na naa Mollah nekkal député xaw ma lan lu mu tudd ci diaspora loolu du sama ambition man du sama ambition pour ma nekk député bu du rêvé wu ma ko doon rêvé wu ma ko d'une simple manière que euh, bugguma lu lu ma tënk man bugguma lu ma tënk voilà faj naa ko ba li may faral sax di wax lu may wax souvent mooy naan euh, bu amee lu may doon bu demee ba ma am laaj lu may doon conseiller lay doon ci jomaay président xam naa ko démb ak tey yàgg nañ wax mun naa ko wax sama xalaat mun naa dem di capter di ko indil di wax di def tàngam conseiller point xam nga boobaa kenn du ma tënk conseil mun naa toog fii di conseiller nit <laughs> am Macky Sall bëri nay conseiller soxlawul dem palais donc à part ça man bëgguma doon député comme ñi nga bëri ñi nga xam naan ma waa nekkal député jas non non non man lu ma tënk bëgguma lu ma tënk bëgguma lu ma tënk mukk mu tënk lu ma tënk rek laay bañ man Mola Fly Eagle Vision Lyrical Invasion man Eagle mooy sama sama euh, li nga xam ne moom mooy sama sama melokan melokan eagle la yore eagle vision vision eagle, lol la yor eagle damay naw man ken du ma naw damay naw eagle la donc <laughs> bo ma suqee rek tek ma assemblée na suqi nga samay laf suqi nga samay laf bugguma don député bugguma bok ci ben liste ñaanuma doon député Mon aigle Mon damay nao fly fly to fly volant haut et dans le ciel dit incarner la liberté absolue dit guider Il représenter la libération des contraintes des imitations à vivre authentiquement et à suivre mon propre chemin avec courage. Je suis un aigle. Le symbole de l'honnêteté et de la vérité. Des principes. Moi, je suis un aigle. Damay naw. Quand nous ma fly to fly Quand, quand, di fly xam bob. bopp ci jaamu yàlla la bokk man na dama xam sama bob picc laa damay naw. Et pare ci picc aigle laa ci aigle vision bu sori vision futuriste taxaw ca kaw kenn duma suqi laaf tënk ma takk ma ne ma kaay doon lii wala doonal ma fii lii déedéet donc député loolu moom génne leen ko ci député Je ma mel nii laa libre di gis di wax muy metti gars yi di accepté ma koy voilà je suis kontaan naa di représenter lii West Afrique Sénégal di représenter lii mooy sama fierté ma patrie ma nation lii mooy sama fierté benn parti du ma tënk benn nekkuma ci benn parti fii su benn parti doomu benn parti militant wu benn parti déedéet bii kii laa militant woo bii moo nekk sama xët moo nekk sama fépp donc beaucoup gëm liste. ngi donc De liste Pastef de beaucoup Pastef te Pastef léegi nag dama leen xamal une affaire bu rappeur est interdit nga que parti gis rappeur qui aduna mu beaucoup ci parti rappeur amul fitu bokk ci parti ku ci bokk dootoo rappeur rappeur warul bokk ci parti moo tax doo gis rappeur ci parti rappeur boo gis ci parti dañ ko gedd ci ñun day xeeñ politique rappeur bu bokk ci parti bu ñëwee da ngay gis ñun duñ koy rejeté ñun hip hop bi dañ koy rejeté rappeur bokkul ci parti moo tax Karim mënul bokk ci parti nit dof mënul bokk ci parti kilifa mënul bokk ci parti Thiat munu bokk ci parti Morgan mënu bokk ci parti ñun suñu mouvement def ñu tënk et il est strictement interdit pour un rappeur ak foo nekk ci kaw suuf ngay bokk ci parti kooku moom yàqu nga <laughs> ñu voilà ñun dinañ loolu na ngeen ko xam loolu moo tax mosu leen gis rappeur bu bokk ci parti coow lu muy bëri yëpp nit dof amul carte Pastef bu koy def ñu koy këdd génn ko suñu mouvement bu ko def génn suñu mouvement nit dof amul parti non il est strictement interdit pour un rappeur nga bokk ci parti jay si bokkul ci parti euh, Fetch seen bokkul ci parti kilifa bokkul ci parti ñun dañu ko interdire strictement strictement lañ ñu ko interdire moo tax amul kenn ci ñun ku ñimee dem naan da ngay wuti carte yor parti naan ci parti bala bokk ngay toog ci seen ci seen i ci seen i ci seen i gox pour vous dire Pastef lu mu organisé wu musuma taxaw fu Pastef dajaloowe amul nak lu organisé invité sincèrement je décline calmement bu def nañ fi sen xaw nu ngeen sax def nañ fi ñu investiture ñu invité ma dawma def nañ fi euh, euh, football Pastef dawma def nañ fi xolal xam lan lay dem marche manifestation lolu moma bolé wa lépp luñ mës a def fii ci Canada invité nañ ma musuma ci teg tànk même football Pastef sax Pastef magum Pastef xalem Pastef daw ma parce que sama hip hop dafa ma interdire ñu may fekk ci waa Pastef toog ñii daan dañuy déri defar seen parti ak seen ma ci du ma fa jege du ma fa laal moo tax dooy dégg mukk ab Louga nga ne nit dof waa Pastef dajaloo nañ nit dof dem na fa ci ci ci seen i convention xaw ma nu ñu koy waxee si seen i euh, réunion wala non non non non c'est strictement interdit. loolu nag ñu ci bëri xamuñu ko ci ñun dañuy foog ni dañuy kii mais non non loolu rab nanguwu ko loolu ku ko def <laughs> euh, maanaam jaay nga sa ngor ku ko def jaay jaayu nga kooku bokk koo ci ñun bokk koo ci ñun. te boo ko réclamé dinañ taxaw song la ne bokkoo ci ñun féeg nga voilà am na animaux yoo xam ni bu animal ba demee ba am lu mu xeeñ ci fee beneen xet bu ñëwee rek animaux yi dañ koy rejeté dootul bokk ci ñun voilà mi ngi mel ni tey nga jël benn gaynde bu nekk parc aan nga yóbbu ko ñokkalo ko baa gaynde ñokkalo ko bàyyi dañ koy lekk day xeeñ nit day xeeñ nit gaynde ñokkalo ko bàyyi dañ koy lekk parce que dañ naan kii jóge na ci état sauvage dem état euh, état animal sauvage dem ci état des état animal humain kon bo jëlee ben gaynde ben gaynde non bokku ci parti la la wax de qui <laughs> n'est na ma était avec Donald Trump moi j'étais avec Sonko nit dafa était avec Sonko kilifa était avec Sonko amna ko ku on avec PDS non bokku de principe ak ci parti la la wax ne sama waa ci yow tamit ci parti di militer ci parti rek militant au parti bi waxuma le sympathisant militant ay way Wa donc gaynde domestique bobu bu demoon tay nga ko park nokolo ko ba dañ koy lekk parce que bokk fa voilà domestique bobu boko ko boo ko rek dañ koy lekk parce que ñoñu état animal état sauvage bi génn na ko dem état domestique donc bu ñëwé ci état sauvage dañ koy lekk bokk nga bok ci ay principe ngeen ndo ben affaire mais do bok ci partem man Sonko jiitewu ma ñoo tax tënku comme chaque jour me démarqué wu ci ñom bu défa wa wa waa lan représentant Pastef yi xaw ma élément Mollah Morgun représenté xaw man bokuma ma et je l'ai toujours dit bokuma ma ma hip hop la bok Son mouvement ñu ngi tudd hip hop bokuma ma Pastef teunkuma moo tax tamit ak respect bu du ma dugg ci ñoom gis nga bëri na fi ay problème yéen seen biir musuma boo leen seetloo musuma cee wax parce que tamit bokkoo ci nit ba pare di leen gàllankoor di leen yàqal wala di ci wax pour vous dire des fois ngeen xuloo seen biir parce que temps passé gis naa euh, benn ndaw su jigéen bu frappe après nous frappe dañoo jël dugal ko frappe dañ ko jël dugal euh, Guy Marius dafa jël frappe dugal ko ci Pastef ñoom pas Pastef lañ mujjee dem mais ñun rappeurs yi <laughs> ba ci rap boo mouvement non frappe dafa dem dugg carrément ci Pastef ñu ay nit seen nit yu ci dem carte mais ñun rappeurs yi dañoo rocceeku côté civil bi ba ñu ci ok parce que loolu comme lu ma leen ko waxee rappeur du bokk ci parti politique waaw ah, dañ ko dañ ko dañ ko bannir maintenant des fois gars yi dañuy ñëw ngeen am seen problème parce que gis naa fi Pape Ablaye Touré am fi problème ak benn jigéen muy euh, kii euh, kii Meng Fatima Meng coow li yëpp <laughs> waxuma ci de lu tax parce que seen parti la coow loolu amoon na fi riiroon fii ba léegi dafa ma ci live Je ci muslu moytu ci parce que sama yoon nekku ci régler vos problèmes entre vous léegi nag boo leen jógee foofu ba ñëw nag bu dugg si ci peuple bi parce que nous sommes les gardiens du temple et de la révolution Si lañ avez des seen parti régler leen parti dedans boo leen ñëwee ci ville bi nag ci town bi nag ñun parce que nous sommes toog gardiens rek du temple de protéger euh, euh, le peuple sénégalais de protéger la nation di protéger la patrie donc lepp lu ngeen am problème seen biir sama yoon nekku ci motax buñ ma waxé dama <laughs> dama ne len wa mais nang mané ne ah Pastef dañu am seen parti bu fekkee ni ñom dañu gis ni par rapport lu ñu dund léegi bëggatuñ ubil buntu yenn partisan yi nga xamni bokku ñu ci ñom ha ah, seen droit la nañ leen ko respecter non la leen ko respecter lé nonu la leen ko respecter lé parce que tamit seen parti la awma ci luma ci yak awma ci luma ci wañi lu ma ci yokku yàq lu ma ci wàññi ñàkk te dama leen war a jox cër seen parti la dañ ko liggéey ba toll fii donc sama yoon nekk ko ci bu fa Pastef waree régler seen problème seen biir dootu du ma ci dugg mun naa daal ne ah Karim bu ñëwee grand man de nii nii nii ma ma ma conseillé ko ne ko booy xoolal ci sunk un pour cent la déparé am ñaata cinquante six pour cent kon plus for reste la rëccee dugg assemblée nationale ba tey jii président la gëmal sa bopp nekk ci proud to be nekk ci gëm sa bopp jiital yàlla yàlla dina la woon bon loolu laa ko conseil di si wuti ñu ne merci grand moom mu ngi ci <laughs> lu ma mun ci lool du ma nga ne non Pastef daa ngëm non non non non sama kon ma tooñ Pastef parce que da ngay respecté nit yi man dama respecté Pastef partem la seen choix la ñoo xam lu ñuy def ok muy boobu des fois nag dañuy ñëw tam indil ma ay problème mu Pastef parce que xolal fi ni rek ma ngi ay ay audio yuñ ma indil buguma ci sax wax ay audio yuñ ma indil et tout ça euh, parce que xamna ni affaire mom amul dajalo fu amul jappante dajalo amul ben dajalo bu amul jappante gis nga fu nek ni déjà tambalé ko sama rak sama rak rek mom mom mom nak mom Pastef la bok amna na kartam ah, wa mom Pastef la bok amna na kartam mi ngi ni <laughs> pour won len ni ki ño bok nday ak ba sama petit frère la Idrissa xam ko hein? mais moom la ne moom pas la bokk parce que du pas. Idrissa Niass voilà ba déposé euh, euh, candidature candidat des candidats ah, c'est entre vous euh, information à fournir pour les candidats à la candidature bon mu def yoram ba affiches il a fait ses affiches <laughs> il m'a dit j'ai tout fini jàppale ma ma ne ko non non du ma la jàppale mu ne noonu la ma ne ko non non du ma la jàppale yow da ngaa bokk ci parti bu ma la jàppalee daf injustice laay gis day mel ni ñeneen ñi yow yaa leen gën a méritant bu ma la jàppale war naa jàppale ñeneen ñi demal nga dóoranteeg ñoom ba mu saf sàpp demal nga jaayante ko ci base bi ba doon fa dara non waruma influencer kooku loolu mooy corruption passive bés bu ma yo yow sa candidature à la candidature bu France ci diaspora bi boobu dama def lu nane corruption passive donc waruma dugg am ben luma interaction ci yow sa candidature demal comme politicien nga bokk Pastef nek France demal reyanteeg ñom ci base bi lo fa doon xamni ya ko may sa bop mais du man maa lay promouvoir partagé wu ma aimé wu ma like ma partagé wu ma aimé wu ma like ma man Mollah Morgun léegi nag demal nga ram reyante da nga politicien nga bokk nga am nga parti am nga carte demal lu ci lu bëgg jël jël ko léegi nag moo dem defar ay affiche am gis nga f moo dem defar ay affiche am et comme nu ma koy souhaité ay moromam noonu laa koy souhaité bon chance mais man duma la jàppale duma la du ma ça sama yoon nekku ci seen partie la entre vous vous le gérez entre vous donc par respect beaucoup di dugg di interagir ci ay mbiru yéen di fait un trafic d'influence non man j'aime pas beaucoup ci yooyu voilà <laughs> nit beaucoup la nit compliqué là beaucoup gëm am ay principe ni ma mel ni non la mel ci papa ci yaay ci nu gis ni. nag ma benn nit buy wax nii rek de boo demoon sama papa laaj ko danaa la est xam nga ni Mollah bu dëgg dese dafa may taaj. Hmm, papa boo demee sama papa dafa la ko bu dëgg dese dafa may boo demoon sama yaay danaa la est-ce xam nga ni Mollah mii moo tax kenn musul réussir sama papa ak sama yaay ay influence ay dem na waxal sa doom. façon doomu aadama bu ne dem na sama papa sama yaay ne ko sa doom xam lan lañ leen di wax gis ngeen Mollah mii ni mu mel nii naa mel dans vie. nanguwul injustice da koy wax papa da koy wax yaay da koy wax maam da koy wax nijaay amu ci amu ci rusukaay amu ci rusukaay <laughs> loolu boo ko laajee sama papa da la wax danaan injustice bu ko gisee ci man sax dafa may taay sama yaay daanaa injustice bu ko gisee dafa amu ci papa amu ci yaay donc ñu doon jaaree foofu yëpp depuis deux mille vingt et ba léegi ñëpp a démissionné parce que nit bu am conviction la bu gëm li nekk sama bopp awma ci mbokk awma ci xarit te li ma xas ba gëm boo boo doon remuer ciel et terre du ma ko bàyyi lu ma xas ba gëm dama ne bàmmel rek bàmmel rek la bàmmel lay tàqalikook man bàmmel bàmmel kese lay tàqalikook man lu ma xas ba gëm ba dugal fii c'est fini dara mënu ko dindi donc du man maay influencer ci sama petit frère bu dem bokk ci parti am fa carte def fa deux ans xeex fa non loolu léegi nag moom na na gérer boppam léegi nag noonu laay amee ñeneen ñu xam ne ñoo ñoo nañ ma yónnee seen euh, euh, seen seen doléance noonu laa leen ko waxaatee na leen sama yoon nekku ci ngeen jéggal ma mais sama yoon nekku ci parce que am na ñeneen ñu ma yónnee <laughs> benn circulaire nii bëgguma ma ma wax ci tamit même chose ñoomit it nii ngi nii waaw mi ngi nii ni ñoo ma ko yónnee xaw ma mojib mojib mojib mojib mi ngi nii mojib dama koy gis nak mais musuma jël temps lire mojib mojib mouvement national des jigéen de Pastef donc le gars m'a envoyé le message Mon cher coordinateur bon mojib ba ngi nii Mon cher coordinateur le mouvement national ñoo koy ndo nak parce que xoluma ko sax le mouvement national jigéen Passif, mojib vous informe que Madame Khadidje Djou est officiellement point focal département de Pékin. Le Moujib est une entité autonome structurée, Ok, c'est entre vous. Maintenant, nous avons des audio. Nous avons envoyé des audios. Faut que nous a un problème sen bir. y a un problème sen bir. Bon. Par, rapport à ce que vous Pastef, nous avons décidé. Moi, euh, candidature à la candidature comme candidat à la candidature. Nous avons un problème sincèrement parce que si démé né leen sen biir choisir tel tel tel tel tel problème mënul ku la problème nangul parce que ay nit la ñi ngi fa ci base bi di donc le gars m'a envoyé les audios comme ça ñi ngi wax euh, voilà vite fait. terrain politique euh, action

parce que bi dafa am ñu ko am ñu nangul am ñu kii moy audio yi ni ñi ngi ay audio voilà audio ay audio la donc quelqu'un m'a interpellé ce matin yone ma audio yone ma li bon ne dafa am ben injustice bu am dafa am ñu def ben ki jël xoma jigen bi bu bokk fi donc bu mu paré je lui ai dit que euh, excusez-moi en fait man liveuru askan wi la duma liveuru Pastef Pastef am ay liveur dafa am ay liveur Pastef te ñooñu gars dañu leen yéen waa Pastef dañu leen war a dooleel ay nit la yoo xam ne ñu ngi demee ay maigre moyen mais ñu am solo lañ ci seen combat bi fu ngeen dooleel seen liveur yi yéen waa Pastef am ngeen ay liveur ay jàmbaar yu nekk ci internet bi yor seen portable di leen xeexal di taxaw di jaayante da leen di may doole oto nu mu daw daw daw da nga koy sol essence sol leen essence seen combattant yi laay surtout liveur yi ñu xeex ñu gën a am envie di leen xeexal parce que don de soi am na mais tamit da nga jàppale boo don de soi ba dem bay fayeeku un million cinq cent wala deux millions nag war nga cee mën a jël dara cinq cent mille sax joxe nag <laughs> parce que boo de yaa ngi don de soi mais don de soi nga ba am ci un salaire de un million wala salaire un million cinq cent <laughs> sa waay bul nga yor nag don de kay moom mooy ba nga bañ la falee nga bañ a encaisser ba nga demee di encaisser un million cinq cent deux millions don de soi ba daa jeex léegi don de la jël ci li nga yor nga jox ci ñee moo gën nga leen di gëm loo no don de soi don de soi yow don de soi too de yow <laughs> am na yenn discours yoo xam vraiment discours xale la daal discours xale wala ngay ngay ngay naxtaan ab xale buy doog a nga bugg ko fowee quoi <laughs> da nga doon don de soi ba yor ca say don de poche ak don de salaire nekk ci doon ñett jël loo def don de soi jox ko ñi nga xam ne ñoo lay xeexal yéen waa Pastef am ngeen ay live il faut les aider il faut les seen salaire dund naa jël leen ci ngeen jox ci booy yi ñu xeex booy dañu yor seen portable nekk di rey seen bopp di tappeeku di leen xeexal mais jël leen ci seen privilège yooyu ngeen jox leen ci loolu mooy dëgg jàppale leen booy <laughs> dem ngeen ba don de soi bi doon don de privilège jël leen ci ngeen def don de soi bu ngeen doon def sacrifié wu jël ci jox ci booy yi ñoom seen liveur lañ boo leen ko defee ñii ñii nii complainte yi ñu am ñoom lañ koy jox man de ku ñëw ci man dama leen xamal dara du ma liveuru Pastef lii du man maa ko war a génne du maa ci war a wax lépp luy problème national je suis preneur lépp luy problème local problème euh, parti je rejette catégoriquement voilà lépp luy problème national luy problème mu patrie lu laal ñëpp maa ngi ci lépp lu laal benn communauté kese benn parti politique wala benn nangam sa wa yoon nekku ci régler la entre vous donc il faut ngeen <laughs> savoir fair la part des choses lii ñu ma yónnee nii waa Pastef yi nañ ko yóbbul liveru Pastef yi nga lii nañ ko yóbbul liveru Pastef yi waa Pastef liveral leen ko am am ngeen ay live yo xam ni ñom ñom ci parti bi lañ bokk am ay carte et cetera ñu bu leen ko fofu mais man du liveal parti donc té non laa leen ko waxee seen problème c'est entre eux qui le règle entre eux voilà ñoon bokuma Pastef donc limay wax rek mom moy euh, encore une fois euh, chers sénégalais échéance yi mi ngi ñëw fexe leen ba lolu moy sama combat man té mom lay jéxalé moy bañu am pourcentage bu dëgër pour mu ñu changer réew mi encore une fois diko wax ak papa diko waxal yaay diko waxal nijaay diko waxal badjan jàppale len parti au pouvoir muy Pastef pour mu am ben majorité garantie

bir assemblée nationale pour réformer manam réew mi lépp lu def dañ ko wara voter assemblée nationale bo boobaa bu ñu ko voter bu jallé dinañ mëna dox wa dinañ mëna doxal donc lolu ma ngi wo bépp sénégalais pour nga japp ci liguey bi ñu jox Pastef une ak sen responsabilité yombalal leen ko jox leen ben majorité absolue benn ma non mun leen duñ leen jox cent quarante cinq nag loolu footoo joxuñu leen cent quarante cinq réew mi dañ koo bokk quand même tax ñu leen di jox cent quarante cinq mooy yéen affaire mbëkk mbëkk yooyu nag taalibe yow xanaa taalibe daanu nga dafa taalibe yi bokk dafa am taalibe yoo xam ne lépp lay dëxëñ toog am taalibe boo xam ne day wax dëgg ak sëriñ bi ak taalibe boo xam ne moom moom moom ab dof la rek day mbëkk rek ak taalibe boo xam ne xol du dëgg sax sëñ bi loolu loolu sëñ bi wax maa demoon asamaan ñëwaat est-ce que la ilaha illallah kon kon kon di mbëkki miir donc gox boo dem am na taalibe mbëkkkat am na taalibe miir mande am na taalibe bu déggu dara bu dofee boo xam ne lépp lépp moom bu ko yaay sëñ bi na yàlla laa sama yàlla laa yàlla laa yàlla laa ah, am koo xam day toog na lu la def yàlla <laughs> voilà donc euh, c'est vrai di ngeen ko gis nag ci commentaire am na ay taalibe mbëkk ay taalibe miir ay taalibe yuuxu ay taalibe am na nag dal am na taalibe yoo xam tamit lu sëñ bi rokkos rek ñu nokkos kooko de ne ko ah <laughs> loolu daf yàlla nga dem ak kañ nga ñëw yow fii yow nga nalaw fi bay bëgg a dee di yàlla nga fanaano yow fii maa ngi léegi nalaw donc taalibe am na <laughs> donc voilà léegi nag da taalibe mbëkk da ngay gis fii taalibe mbëkk lu tax ñu koy jox cent quarante cinq <laughs> lu jox cent duñ ko jox cent quarante cinq nañ ko jox majorité majorité boo xam ne buñ dugalee loo ay mun nañ ko def duñ ko jox benn quatre cent quarante cinq mel ni taalibe mbëkk yooyu taalibe miir yooyu taalibe mandé carrière duñ ko def duñ ko def dañuy jël ñeneen doxase ci biir dañ ko jox nu mu dee dee dee sax euh, euh, euh, quatre vingt dix wala quatre quinze loolu moom mais duñ ko doon ñu koy jox cent quarante cinq <laughs> loolu teg taalibe mbëkk bàyyi leen mbëkk yi bàyyi leen xëm yi sëñ bi wax doo doo doo leen analyser doo loolu la ñu xoolal jàng yi nu muy neex neex xam nañu dal yi réfléchir nu waa ji di mën jàng ak di yuux yëpp am na ñoo xam ne ñu ngi koy corriger nan non du loolu isa jaaha nasuuru laa la du nasiiri laa nasiiri laa am na taalibe yoo xam ne dañuy toog ne isa jaaha nasuuru laa la du nasiiri laa am dof boo xam ne Issa Dia Nassour la lay Issa Dia Nassour la yàlla ah, ah, yàlla dof la xamul sax ni waa ji ma ngay jaxase araf ya donc xam na taaliba yooyu am na am na koo xam moom bu lu waaj a wax rek dëgg la lu waaj a wax ëskay la lu waaj a wax mbëkk la lu waaj a wax la ilaha illallah yàlla la am na koo xam ne dafa dal am na koo xam day déglu am na koo xam day corriger loolu moo nekk ci barab ga donc nag <laughs> xam naa café gee tàng am na taalibe mbëkk yu may gis fii naan jox ko sa jox ko cent quarante cinq ñu naan jox ko cent soixante cinq jox ko <laughs> voilà <laughs> voilà doucement lentement aya bimbam aya réew mi dañ koo bokk duñ réew mi dañ koo jox duñ duñ luñ jël lépp luñ am ci àdduna asaaloo leen ko pourquoi pourquoi ñu bokk réew mi dinañ leen jox majorité boo xam ni bu ñu demee assemblée national li ngeen yéene réew di ngeen ko a te mais ci biir nag ah cohabitation nag cohabitation quand même <laughs> voilà cohabitation nag war na ca mun bu taxaw di comme Sonko bu mu fi nekkee un pour cent bi mais Sonko <laughs> gis nga nu mu il faut am Sonko bu mu un dem ci plus fort reste ci la ko en tant que député. xeexal na Sénégal lu mën projet de loi yi taxaw tenir leen tête on a besoin de ça quand même mais duñ jël assemblée nationale bi def ko rek ak ab ab jàngu gumba ak jàngu gumba ñëpp toog rek bu buñ ñëwee am buñ leen joxe projet de loi dañuy yuuxu ah kenn waxu la laa ilaha illallah la ñuy wax laa laa ilaha illallah nga yaa yaa yaa yow yaa ngay wax <laughs> assemblée bi moom du boobu du assemblée boobu moom wutuñu assemblée boo xam ne ñoom ñi dañuy taw rek di wooyandoo yaa yaa yaa yaa du yaa laa la laa ilaha illallah voilà donc <laughs> dinañ cohabiter dinañ jaxase sax tuuti sax dara am ca <laughs> au moins ngeen bëgg ñu ñu jël la xëpp leen ngeen nekk seen biir yéen seen biir bi dina ay mbellante déedéet dinañ ci dugal jaaru euh, espèce Guy Marius Sagna bi genre espèce Karim bi genre espèce ba kat goo xam au moins dina taxaw di contredire di mun a indi débat sax débat boo xam ñëpp dañ ci ànd rek fu débat di amee ça va y non quand même quand même réflexion réflexion réflexion doucement rek doucement doucement dal dal dal dal du boo ko sànjaafoo laa la wax di di ko bëgg a wàcc boo ko sànjaafoo di nga ko bëgg a wàcc mu tëla doucement rek dañuy am ñu ñu fay dugal ñoo xam ne au moins dinañ créer débat débat dine <laughs> bu ñu fa dugalee ñëpp ñu nuroo kon assemblée boobu assemblée Sonko sax ñaanu loolu vraiment assemblée boo xam ni cent quarante yëpp ñu jox ko Pastef mu am benn vingt cinq ak wala benn benn vingt bu fa tax <laughs> kon assemblée boobu nan lay am débat nan lay amee débat fan la débat di amee voilà am na ko ne moom cent trente waaw ba léegi waaye daal am leen marge bu ngeen ci bàyyi bu leen ñoo ravagé lépp am leen marge mu am sax ñenn ñu ñu ñu ñu ñu fa kii waa cent trente garaaw mu waa cent trente donc di woo peuple bi ñu jox ñu mënul dara sax ñu jox waa Pastef cent trente pour ñu mën a euh, bon débattre wala cent vingt cinq wala kii xam <laughs> voilà ngeen 15 sax ngeen may ko pour mo am contradiction xam nga loolu moy indi innovation contradiction débat d'idée voilà mais bu mu jël lépp warax toog tamit yooyu day metti donc voilà donc gaay yi euh, loolu nag bu ñu ubbee euh, campagne bi dinañ ci gëna wax dinañ gëna sensibiliser inshallah pour ñu vraiment ñu jox euh, ñi nga xamni ñoy ñooy ben majorité garantie à l'Assemblée nationale voilà léegi nag euh, pour vous dire encore le dernier mot aussi revient à Ousmane Sonko le dernier mot revient à Ousmane Sonko voilà <laughs> loolu moom naa leen ko wax sinon bon voilà ñu pare foofu noonu bon gars yi ñi may wax ay waxu euh, bon gars yi tur yi ngeen di dégg yëpp ñuy jaabante dikk jot nañ ci wax ñum seen <laughs> dégg naa benn waaye démb nee na <laughs> benn waaye démb nee na waa dig dañoo mel ni sama laay bi la ñuy déglu quoi waa ji nee na dañoo war a indépendant dañoo dem jëli laay moo laay di recoupé tur bu mu wax ñu dem jël woo ça m'a fait rire non noonu xam nga montre baax yi ñoo bokk heure montre baax yi ñoo bokk heure ñi ngeen di gis ñii ñëpp ñi ngi woon rëbb dëbb bon jot nañ leen wax quoi jot jot nañ leen wax ba ci ki fa mujj bërki démb am na ñuy bëri na benn waaye na saa yu affaire yi non Mollah yow ci yow laa déggee kii Ablaye Sylla Ecotra Ablaye Sylla <laughs> jaar na fa ok Jérôme Bandiaky Jérôme Bandiaky ci yow la ok démb ñu ne kan Lat Diop mais dama ne fii dig lu muy tàmbale ba bu muy jeex ku ñu fa indi yëpp voilà euh, jot naa toj dossier ci rëbb dëmm di ngeen dégg yeneen tour yo xamni après ngeen di xalaat ni mi ngi ci live bi euh gis na boy sa yu dara amé rek ñu dem mais booy waa daal lool la bëgg poser avant ma dem mais boy nan lañu def ba xamni la ah, comme comme comme comme Jérôme Bandiaky bi xam nga amuloon titre bi tudul Jérôme Bandiaky mais nan lañu def dem fu fu may waxee Jérôme Bandiaky laay mais luma def ci live man nay 1 million nan la boy di xamé ni live bi la wax ci Jérôme Bandiaky bañ tàgg ko mais boy ils sont forts mais loolu secret bobu bugg naa ko xam nan la boy di def di dem ci sama ordu yi bu ñu euh, Cheikh Tidiane and rek fekk waxna ko ci live nan la boy di demee ba xamni fi live bi la waxé li <laughs> wala sénégalais yi dama len ragal de non dama len ragal billahi wallahi gis nga sénégalais ku len leen da nga len xamul mais bop yu graw la yor ils sont super ultra intelligents ñak mo len sonal sénégalais ñak rek a leen sonal. mais billaay koo ci joxoon mu lekk ba suur ba naan ba màndi nga yóbbu ko laboratoire boo ñëwee fekk mu defaral la bombe atomique ñàkk moo leen sonal buñ ñàkkee nag duñ mun a xalaat parce que <laughs> bu ñàkkee luñ lekk rek la ñu wër xam nga ku ñàkk du xalaat vente qui crève n'a point d'oreille dañuy xiif duñu du duñu mais koo ci jox mu lekk nga jox ko salade bàyyi ceeb nga jox ko salade mu dóor salade nga jaxase si yàpp yi def def ci ingrédients yi légumes yi mu mel ni benn tons njaga caam mu lekk ba mbàqali fees nga jox ko boisson mu naan nga jox ko ataaya mu dóor géex nga tëj ko ci laboratoire ne ko maa ngi ñëw billaay jox ko matériel boo ñëwee mu ne la bombe atomique ngi bombe nucléaire a ngi nii bombe nangam a ngi nii <laughs> ils sont très réfléchis mais ñàkk moo leen sonal dañuy yow di lu ñu lekk mais boo leen joxee lekk bombe lañ lay defaral bu leen wax dara tegal matériel rek billahi bo ñëwee fekk bombe atomique bombe nucléaire bombe nangam ils sont forts très forts ni ñuy démé ba xamni live laay bi fii laa ko waxee ñu koy jëlé génné ko ba dang ko ak ni ñuy monter des fois nga gis ben Yërim sék bu fen 1830 contredire boppam 2024 ñu dem loqoti live 1830 bu Yërim Seck que dag ko. indi ko monté ko ak laay bu bu mu contredire ba mais <laughs> ils sont forts <laughs> donc laay ils sont très forts <coughs> bu ñu koy vaar da naan mais booy booy ni soo affaire bi ba léegi man sama niveau de réflexion eggul foofu da ngay def live mille huit cent vingt deux wax fa def diggante boobu nga def mille live un million de live 2024 nga contribuer sa bopp booy dem lokkati live 1822 ba dagg ko indi vaaral la ko <laughs> dégg ko mën la ñii billaahi comme tonton Ndiaga Thiam ñii xiifoo leen soxna rek <laughs> les sénégalais yi boo leen leen joxoon ba ñu lekk ba seen biiri fees ngeen daggal leen ay frie ñu yëy ngeen jox leen boisson ñu naan <laughs> booy mun nañ la defaral Sénégal en moins de vingt quatre heures jox leen nag ñu suur nag jox dóor leen diw leen ba seen max yi fees nga dóor leen ñu naan boisson parce que boisson dafa cher Sénégal boo ko yoree ñu ne da ngay noos nga jox leen boisson ñu naan nga duyal leen seen frigo boisson ba ñu xool bu ñu ubbee gis boisson fees dell ñu ne maa moom coca bi maa moom jus bi maa ne la yow la yi ñu daggal la <laughs> billaay vingt quatre heures nga nalaw yow fekk ñu defaral la Sénégal voilà mais nag seen xel yi du mun a dem tànk biir yi dara Sénégal benn problème am moy bir <laughs> mais xel fess tep biir yi vide xel da fess sen biir yi vide sen xel yëpp lu muy fees lu muy fess fees fees biir yi lañ bëgg alimenter <laughs> mais bu biir yi feesee xel mi fess bu boba xel mi day gemi day génne rek lolé problème loolu rek moy problème mu Sénégal bu ñu ko réglé hein souveraineté alimentaire bi bu ñu ko réglé Sénégal avancé dootuñu yakati dootuñ yàq dootu laal dara dañuy romb di dem parce que biir fees na <laughs> voilà <laughs> ventre plein sénégalais réfléchi yaa jënaa ventre plein nègre content ventre plein sénégalais réfléchi ventre vide sénégalais réfléchi de quoi manger de quoi ramasser de quoi <laughs> donc loolu moom leer na nañ ñi donc euh, boy ay jàmbaar fàq tëdd lañ pour woné ni rek nit yu am xel lañ ñu am xel lañ donc nañ gor gor dal di len jox luñu ñu lu ñu seen biir yi voilà mais nu ñuy demee ba loqati live yooyu ba kay dag ba kay vaar <laughs> ils sont extraordinaires extraordinaires les sénégalais machallah waaw voilà biir fess xel fess biir fess xel fess waye xel fess biir vide xel xalaat lu biir fessé <laughs> xel fess biir vide xel xalaat lu biir feese te bu boobaa nag day sonn moo tax ventre plein nègre dormir parce que xel bi bu feesee biir bi vide xel mi di rayante rayante ba biir bi fees day sonn <laughs> ba diggante bu muy feesal biir bi day sonn boo tax dana tig rek mu ko génn laa mi ngi mel ni fas bu dee parce dafa sonn pour mu feesal <laughs> biir bi il a

développé nañ ko mais léegi nag dañuy bàyyi justice xam nga am na lu ma waxoon laat jóg <laughs> gars yi da leen bàyyi xel ci li may wax waaye <laughs> safur laa buñ duree jàmm laat dafa dem ay yenn sénégalais yi sosal ko quoi wax lu kii moom mooy xam nga Sénégal amu amuñu woon inform duñu am information quoi mooy waa ji nga xam ni mu ngi nekk euh, Géejawaay FC mu ne woon laat ci manifestation yi daf ko doon bugg a dénk un milliard ñu invité laat gars yi ne fa tey mu laat dee tey mu dee dee laat dugg génn live waaw maa ngi nii maa ngi doog a yegg si ma leen gars yi Sénégal dal leen rek bés bu ba ñu ubbi dossier yi ba commencé ku dem des ku soobu ne mes ku dem des ma ne bu leen may ñii lu ñu wax yéen a ngay fàttali ma ne laat nii bëss bu ñu ubbé dossier ba xëc ci buntu tribunal xëc mu ubbé ñu xëc bi xëc mu ubbé ku dem dess bu boba do dem bay ñëwaat bay live non nga la lañ ko waxé won ni la lañ ko waxé won wala wala wax la bu dëgg rek né ma du dëgg boy lépp ñu dem tagal la live bu may wax lool ni la lañ ko waxé won mané dal leen la dal jarul génn naan gis nga dañ maa sosal dañ ma takkal boobu les choses sérieuses tàmbaleegul mais les choses sérieuses bu tàmbalee ba ñu ne xaaj buntu tribunal bi ba ñu ne xaaj buntu tribunal ba mu ne ñu ne leen eh laat au booy ñëw doo delluwaat noonu laa ko waxee woon noonu laa ko waxoon moo tax buñ ne au ku dem des di ngeen déggaat ñeneen Farba Ngom oh au Diouf Sarr au tableau kuñ ci woo doo delluwaat kuñ ci woo Mathieu Faye présent au tableau kuñ ci woo doo delluwaat ku dem des voilà léegi nag lu ma ci jàppale rek moom mooy <laughs> euh, politiciens yi nekk fi di fen sénégalais yi di leen rey di leen mbugal di leen tiiñal di leen taqal di leen tëj ma jàpp di saaga tey rek man nangam yow kay rëbb dëm bu tàng jër <laughs> am ñu jóge fee rek waaw na dañoo war a bàyyi di tiiñal gor yi di tiiñal di takkal gor yi di tiiñal gor yi yi du gor yee gor yee dem des di tiiñal ak ñoo ci gaaw nag non non ñoom moo laa di ay kilifa kuy kilifa <laughs> yaa rafle kilifa sa kilifa yaa ngi noonu di dugg dig de kenn ñëwaatul di nga comprendre su ba ngay comprendre du ñu kilifa du ñuy gor du ñu balaa maa dee rek ñu yónni seen seen euh, négro yu yu xiif yi yow moo laa dee bàyyi di tiiñalaate nu ma tiiñal gor di yàq der gor di yàq der gor di tiiñal gor di ko ana gor yi xanaa di nga leen di tiiñal léegi <laughs> ana gor yi gor yaa ngi dugg dig de dem leen waa digga ngi tiiñal gor yi dem leen <laughs> mooy crazy mama yi crazy mama crise maama yi non di ci gor ak ñoo ci nag eh, di yàq dara di yàq dara gor <laughs> yow yaa xam kuy gor di yàq dara gor di tiñal gor moo laa dafa war a bàyyi di tiñalaate di yàq dara gor ana gor yi gor ñoo sàcc seen milliard noonu porte aller sans retour <laughs> su di nga leen fekk ci kaso bi ñoom di ngeen comprendre ba xam ay gor lañ doon tiñal wala ay gor lañ doon taxal wala lañ doon tilimal <laughs> deru gor comme gor daa yomb Sénégal moom boo sàcc seen alal ñoo jox leen ñoo gor la boo tib boo jaayee dorog ñoo may leen ñu ne garmi la <laughs> ñu ne kilifa la <laughs> vous n'avez encore rien compris donc loolu lépp yéen lañ ko doon defal yéen kese lañ ko doon defal yéen kese yéen a taxoon ñu jëree suñu bopp <laughs> waaye daal comme gor see gor ak garmi daa daa rafle Sénégal ba nga xam ne nit yi dañuy bàyyi seen papa yi bàyyi seen yaay yi bàyyi seen maam yi bàyyi seen juróom-ñaari maam bàyyi seen nijaay yi ñoom njaga caam fële jàpp ay Antoine ñàkk jom bu dee njaga amul sax un franc nga mais am na ngor nga ne ko fi ñukk dafa ko kilifa de nga bàyyi sa nijaay bokk ak sa ndey ndey ak baay nga dem jël Antoine ñàkk jom ne mooy gor Antoine ñàkk jom nga naan non na bàyyi gor bi may tilimal na bàyyi gor bi may taqal moom kii kii kilifa la <laughs> waaw comme sa baay newul kilifa kay sa yaay newul kilifa xeeb nga leen sa nijaay newul kilifa xeeb nga ko sa bàjjen newul kilifa xeeb nga ko nga dem jël ab sulaar cagabaar def ko kilifa ne <laughs> dañuy yàq door <laughs> deram <laughs> moo tax fii ngay mujj ñoom ñëpp a ngi ci kaso bi ci kaso bi lañ jëm ku ku ku xeeb ku xeeb sa mbokk crésiment may ku xeeb sa mbokk dey ña def ay bandi ngay jël man de moo tax kenn ci ñoom du kilifa kenn ci ñoom du gor man kay sama kilifa moom mooy ki ma jur kooku gisuma ko gën a nekk kilifa maanu la def sama ndey nga la toog fële ca Kaolack muy metti tàng jër ma nga fa toog muy nawet muy noor ma nga fa toog di muñ kenn déggu ko ci dara kookoy gor kooku day laa xam ni gor la sama nijaay jooju nga xam ne yoru fukk dërëm muñ a muñ toog fu mu toog ci joxuñul tàllalul loxom kookoy gor jëlul alalu askan kookoy gor moo tax ñooñu dañoo gore ba ma go ba ma xam ni ñoo ñooy gor ba ma xam luy gor ku ma ku sa kër manqué gor nag koo gis daf daf gor waaye ku sa kër am gor nga xam lan mooy gor ak lan mooy kilifa du du foo dem rek ñu ne la kii kilifa nga topp ca déedéet da nga dem ba perdre repère mais boo yaroo ci kër gu am gor am kilifa nga xam luy gor nga gis sa ndey lu muy metti metti du yalwaan lu muy metti metti du tàllal lu muy metti metti mi ngi ci kër gu uuf njaboot ga même bu dee benn cent franc bu mu am jënd ci caaf di ko jaayaat nga xam kookooy yee ku am gor doo goroo keneen ku am kilifa sa kër rafle paanoo kilifa doo doo kilifa woo keneen <laughs> voilà ñoom ñëpp de moom kay chaque jour nee na kii nee na Farba vient d'être arrêté waaye ñoom ñëpp la yàgg ñoom ñëpp booy dëggoo seen gor yeeg seen garmi yeeg seen kilifa yi ñëpp ci kaso ba ku dem des dig digga ngi noonu ñi ngi ko ubbi yàmbalan ku dem des ku dem des <laughs> ku dem des pare gu leen de pare gu leen de waxuma dara sa waay ñëw porté euh, euh, euh, Jérôme Bandiaké mi ngi ci sama dossier yi de kii ni ñu koy waxatee sax ñu ñu sama dossier mais Jérôme Bandiaké nga ci di <laughs> mais man baal leen ma gars yi dafa am beneen tur moom laa demee foog ma dem nag gars yi dafa am benn tur bu ñu dugal ci sama dossier yi mais mais kooku man mosuma ko tudd turam xoolal Jérôme Bandiaké yooyu ni sama mandat d'arrêt international booba Macky Sall dóoroon bi <laughs> Jérôme Bandia Kegini, nous le à travers live largement partagé sur les réseaux sociaux il n'a cessé de faire des appels à l'insurrection pour empêcher la tenue des procès du leader euh, Ousmane Sonko maintes reprises il a incité les jeunes à s'attaquer aux magistrats aux forces de défense et de sécurité aux gouvernants appelant même au meurtres de ces derniers en donnant leur adresse et en publiant leur épreuve photographique Jérôme Bandiaki donc lii rek gouvernement wane na ni Jérôme Bandiaky gii ñu jàpp tey euh, dem na ba porter plainte parce que maa génne génn photom génn turam déclenché ko ba Sénégal yëpp xam ko donc tey yàlla may na ma dëgg ci kaw Macky Sall ak ci kaw comploteurs yi ba ñu pexee ñoom Jérôme Bandiaky ma tudd turam mu tiit ma génne photo mu tiit ba ñu woo ko ñoom gouvernement bi ne ko léegi da ngay porter moo la tey yàlla may na ma dëgg ci kaw Jérôme Bandiaky <laughs> voilà dëgg rek koy mujj na dëgg rek koy mujj dox leen ci dëgg nekk ci dëgg loolu moo ñu boolewaat tey ñii daje bu amoon benn tarfatal ay ni de faux doo leen fi toog tey <laughs> dëgg rek moo am njëriñ voilà. tey kon Jérôme Bandiaky ba ma génnee turam tiit na waaw mais dafa am ku ñu ma ci dugal nag ku ma jaaxal koo xam musuma tudd turam mais kooku moom il faut mu expliquer ma lan moo tax ñu dugal ko ci ñu ne. ñaar porté plainte Jérôme Bandiaki et Soxna nata Mbay tour bi musuma ko wax xawma sax ku deux citoyens sénégalais victimes de ces lives incendiaires ont porté plainte contre lui respectivement mise en danger mais kuy Soxna nata Mbay Qui warna wax la ko lu ko Macky Sall fay de Je tuddo ba sax kii ñaata la encaissé ci gouvernement bi pour ñu mun ko ne kaay porter plainte Mollah Morgun ak fan ngeen mus a dégg ma wax ba ne soxna Naata Mbay xaw ma billaay dem bu mu ko liiree dama ne kuy kii journaliste TFM mus ngeen ma dégg ma wax tur boobu booy lokkati laay bi nañ dem génne mus ngeen dégg sama àdduna ma ne soxna Naata Mbay xaw ma ko xaw ma fu mu ki ñaata la encaissé pour ñu mën ko duggal fi <laughs> ñaata la encaissé mom ñaata ki mom fokk mu wax leen ko vraiment turam a ngi nii soxna naata mbay turam a ngi gis ngeen ko ci ki ki e soxna naata mbay wa man man ki kan la ko kan la wax ci mom kay na ne journaliste la sénégalais mais musuma wax tour bi musuma xaw ma musuma wax tur bi sama àdduna waa kii moom lan la encaissé pour pour gouvernement bi ne ko kaay porté ko plainte mu mu ba mu porté ma plainte ah affaire bi jox na ah ah non non ko porté plainte dañ naan la dañ naan la euh, kii bi yóbbu na ko lu mu tuddati euh, ba ba bañ jox ñu assemblée nationale rek incha allah. bu ñu joxe assemblée nationale dañuy revoiraat lii voilà sinon dañ naan euh, amnistie bi yóbbu na ko mais man kii kii foog mu wax ma fan la mës a dégg ci àdduna ma tudd turam bu ma juddoo ba léegi musuma wax soxna naata may tey la tey naa koy doo ko wax Jérôme Bandiaky c'est vrai maa ko génne maa ko wili pande li mu nekkoon lépp lu mu doon def lépp mais soxna naata mbay kii xaw ma ko xaw ma ko ci aadama xaw ma ko ci aw musuma gis musuma wax ci waxam xaw ma ko sax musuma liir turam mais moom nan la mën a demee di ma <laughs> naa sax mu ne appelant même mus naa woote au meurtre à Soxna Naata Mbay mus ngeen noo dégg moo Soxna Naata Mbay di ko woo rey leen Soxna Naata Mbay <laughs> man Soxna Naata Mbay mii lu ko dugal fii bugg naa ko xam

photographique essaie une photo Jérôme Bandia ki def nako et ak ki nga xamni moy madame Madambal mais soxna Naata Mbaye mi deux citoyens sénégalais victimes de ces lives incendiaires ont porté plainte contre lui respectivement pour mise en danger d'autrui diffamation menace de diffusion de données à caractère personnel etc. etc soxna est-ce que Mme Diagne est soxna Naata Mbaye <laughs> dinaa ko lijjanti bàyyi leen ko sama loxo ma ko waaye soxna Naata Mbay mii moom xam na ki ki ñu wax ne moo nekk TFM dinaa fexe ba woo ko téléphone ne ko waa man yow man xaw ma la xëy na ma dambal bu nee du moom nag nga xam ne ma dambal jaañ moo tudd euh, euh, këyitam soxna Naata Mbay <laughs> mun na nekk parce que lii <laughs> ah gelu Mansour Mansour Faye ah, am na ku ne ah est-ce que du gelu Mansour Faye man kay noonu laay posé Eh, ya ya ya ya ya ya, ma yónnee foo ma yónnee lien bi gisuma ko de gisuma lien bi de na naata mbay moom bugg naa xam kan la quoi jappale len ma ci ga ci recherche ya way su kan moy soxna tam bay kan la kan parce que man tour bi musuma ko wax budé ma dambal jaañ moo tudd soxna tam bay nak mun na né jambal moom vraiment wax nañ ko fi ba tàyyi ñoo gisuma lii donc euh, voilà kon ma ngi ñëw dem ngeen jappale ma nak ci soxna Naata Mbaye mii je pense pas que c'est celle de la TFM parce que kooku elle est effacée ah oui, kooku kooku mosuma ko tudd xaw ma sax waaw donc euh, am nañ ñu vraiment soxna nata mbay buñu xam du kooku parce que kooku elle est très effacée ñu non nee nañ journaliste bu dee journaliste ñu ne kooku kooku moom du moom non du kooku sax parce que mënul doon kooku parce que kooku musuma ko tuddu kooku xaw ma ko quoi musuma ko tudd xawma ko sa bu dee du kooku kooku moom gëm naa ne du moom non du kooku de gars yi du du ko nekk TFM de sonna naata mbay daal bu dul ma dambal jaan ji di yërim sexe waaw xaw ma daal man daal affaire bi jaaxal na man daal euh, Eh, soxna naata mbay mi jaaxal la <laughs> wa kan la war a doon <laughs> xëy na nag mu nekk beneen jigéen bu tudd soxna naata mbay bu newoon ci gelu <laughs> gelu ma dambali de mun na nekk wala gelu kii mu cuucu fay tey ñoom mu cuucu ñoom yëpp ci kaso bi ndeysaan fii ak déwén sama gaay ah, elle avait porté plainte contre Tunkara kan la jàppale leen ma soxna naata mbay donc elle avait porté plainte contre Tunkara kon moom da moom lan la non mais kooku xawma dootul man man man man naa wax la dara nag lu rëbb dëmb di bëri bëri yëpp nag mémoire d'éléphant laa yor nag loolu nag danaa la ko xamal dama mun a capter voilà dama mun a capter loolu nag naa la waxal de bu ma waxee dara boo ko waxee mun naa fàtte mais boo waxee rek dana xam ne man la waaw mais soxna Naata Mbaye moom tur boobu musul génn sama gémmiñ sama sama sama sama esprit xam na lu muy kii quoi boo bu ma bu ma miiroon boobu boo ma naa mais man ci lii ci plainte bi laa liiree soxna Naata Mbaye xaw ma ko woon waaw mais donc yow ma lien foo ma ko yónnee foo ma yónnee lien bi maa ngi nii sa ñetti portable yëpp mi ngi nii ma jàkkaarloo xoola xoola portable ñett yëpp a nii ma teg yëpp a ngi nii ma teg lien boo yónnee bii ngi nii yaa tax ma teg yëpp ñett yëpp mi ngi nii ma teg gisoo yëpp pour xaar sa lien bi mi mi ngi nii beneen baa ngi nii portable Sonko baa ngi nii beneen baa ngi nii foo ma yónnee lien <laughs> dina bàyyi <laughs> soxna <laughs> mémoire d'éléphant laa yor de leer laa lay wax nag xaw ma lu ma waxul de mais boo ma wax looyee lu ma waxul moom sama xel danaa da day yuuxu dana teer teer teer mooy moo bi maa nga doog a dégg tur bi kay dama ma ci plainte bi laa ko gise ci mandat d'arrêt international bi laa ko gisee ah ci portable Sonko bi nga ko yónnee ah, yaa ngi doon jéem woote waa fii fii gisuma ko c'est bizarre ah sa appel sa appel moom gis naa ko mais gisuma ko fii ah lien bi mi ngi doog a ñëw lien bi ah ok ok ok ok ok ok ok nice merci parce que kii bu foog ma xam kan la quoi am na lien buñ ma yónnee xaaral ma xool pour xam kan la euh, parce que kii jaaxal na ma torop torop torop soxna naata mbay mi jaaxal na ma daal kan la ci kan la ci kuy kuy soxna naata mbay ay Macky Sall Macky Sall nag waaye booy Macky Sall yëpp la def ay jaam ci Macky Sall moo bon billaay Macky Sall moo Macky Sall moo bon moo yées du nitu dara dara dara ay gor la jël def ay xaj jaam pap pap pap pap pap yàlla ñu musal ci Macky Sall quoi billaay wallaay gars yi ni ñuy jaamoo xaalis ay gars yi ni jaamoo xaalis garaaw Papa, loolu moom war nañ ko mom lañ wara sénégalais ak ak ak ak xaalis moom no na quoi Papa, te leen a jaral lu né lu né ils étaient prêts à tout tout pour pour pouvoir tout lépp jaraloon na leen ko pour pouvoir quoi prêt pour ray ñëpp pour pour pouvoir mais c'est incroyable c'est incroyable daraay àdduna jarul loolu daray àdduna jaru mais c'est triste gars dañ leen jàpp def leen ay xaj di leen jéeloo ay film porno lu ne lañ leen di defloo ay film xaj ndax ay alalu àdduna c'est incroyable c'est incroyable da bu ñëwee ci man laaj laaj laaj leen laaj leen lu ma leen wax dañoo foogoon ni ñëpp lañuy ñuy jënd ñëpp ñëpp la jënd <laughs> <laughs> c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Euh... mais man lan moo tax bi bi bi demul lien bi nga ma yónnee mais yónnee ma lien bi ci kii waaye ci ci ci numéro euh, whatsapp Sénégal bi moom mooy bu Sénégal yëpp am whatsapp Sénégal waaye parce que bu bii moom bëgg naa ko xam non ñoo ñi ñëpp kaso bi lañ dem booy gars yi seen liste bi dafa gradé liste yi nu ñu tojee noon da liste bi day Ngom ci kaso ba la jëm takkal ma cuucu ca kaso ba jëm takkal euh, kii euh, lu lu mu tuddati euh, Ablaye Diouf Sarr ca kaso ba la jëm takkal kii Eh, directeur port ba ca kasso ba la jëm takal <laughs> gaa yooyu ña ñop fi ak dewen la la wax ñi ñep ñi ci kasso hi ñi gaa yi gaa yi dina leen coûté cher cher cher cher cher cher cher cher ser wallahi billahi dina leen coûté dina leen ko cher ñoom ñëpp a ngi ci ko ñom ñop waaw Amadou bana xamna li koy xaar mom mom mi ngi ne selaw akay bandi mom xamna li koy xaar mom Amadou Ba ak a xam lu koy xaar Amadou Ba de coow li du bari Amadou Ba ku amul ba boo amul booy wërte amoo di nga ba amadul amadu ku amul ku amagul da nga ba amoo Amadou Ba non mbay Prodac daw na ca daw yu njëkk yi mbay Prodac fa napp songu non non lépp kër gi damay dugg mooy récupérer kër gi bu kër ko bu pare même ku duy bu ko ma am Macky Sall mooy kut kut kut kut kut kut dëgg booy mbay dofloo mbay problème mbay togg donc deux cent millions la ma la jox donc damay hypothèque kër gi mu hypothèque kër gi après man booy kudd bi sax dama ko ramassé kopp yi kopp yi dama koy ramasser sama yoon naw ci dama yëpp laa yóbbu kopp yi ak kudd yi ku doon ko waroon jël hypothèque yi kër jàmbur bi jël kopp yi ak kudd yi laaj ma fu mu ne mi ngi fii <laughs> mbay foo jëm mbam mbam mbay mbam mbay kaay kaay kaay kaay am nga fi deux cent millions ne la Sonko joxal kii deux cent millions waa mbay ñëwal mbay Sonko joxal kii deux cent millions voilà jox ko deux cent millions da mbambay da mbambay ñëwul Sonko da la jox deux cent millions Sonko génnal nga ne ko waaw na ñëw jël deux cent millions mi balaa moo hypothéquer sa kër gi parce que dëkk hypothéquer te nee du fa bàyyi kudd du fa bàyyi kaas nee na dina yóbbu ba dindi moket ya kon jox joxal ki deux cent millions yi ah eh, sawaay am na deux la jaar jox ko deux cent millions Sonko joxal sawaay deux cent millions parce que duñ ñun Sénégalais ñoo di seetaan nga hypothéquer kër jaabur bi ramasser kudd ya ramasser kaas ya ramasser potu pot de fleur yi kay nga jël say 200 millions c'est tout voilà ñun dëkk bi jamm lañ bëgg ak sécurité voilà kon Sonko joxal mam bay 200 millions mam bay ñëwul Sonko jox say 200 millions mu munoo toog Canada nak mu la koy jox dé do do de Sénégal la xewé ñëwul Sénégal mu jox say 200 millions jamm na ñoy ñun Sénégal jamm la ñëwul c'est tout kon ñi ngi wo mam bay Niang mu ñëw Sénégal jël si 200 millions mi voilà Sonko mu bañ a hypothéquer këru këru Sonko parce que Sonko ben keur la yar hypothéquer jëm donc da jox ko 200 millions Sonko joxal kii 200 millions Mambay ñëwal jël say 200 millions voilà. te Sénégal yëpp ànd nañ ci jàmm na boo ñëwee dara du am nga jël si say 200 millions te dem voilà waaw na ñëw jël si. voilà na ñëw jël si bàyyi kër Sonko benn kër la yor boo ko hypothéqué fu ñu ngay ngay for ay kudd ay kaas di yóbbaale ñëwal jël say 200 millions surtout ñun jàmm lañ bëgg ñun Sénégal xeex jeex na ñëwal jàmm na ñooy justice am na ka jël say cent millions ñëpp ñibbi ñëpp a ngi ñibbi ndax justice bu am. Quand il dit 200 millions, c'est tout. Voilà. Donc, au Sénégal, il a ni les rares, ni le 200 millions. Point. Donc, je ne sais pas si vous avez dit que vous Mambay, ñoo ci 200 millions, il y a justice au Sénégal. Kenn dula def dara, ñoo jël ci 200 millions, c'est tout. Voilà. vraiment, mom légui légui vraiment justice amna fi. Dalal leen seen xal. dina ñëw jël si ko dina ko jël si incha allah dinañ dinañ lu luñ mën pour pour Mame Mbaye ñëw jël si deux cent million yi waaw mais man yow man mais man yow man man daal man portable yi tam portable Sonko yi moom daa mun a war quoi caa man lien bi yaa ma ko yónnee fii mais boobu ba léegi maa ngi cliqué xoolal ma cliqué nii lay def xoolal xool nii lay def kii kii kii ñaata mbay mii moom xam naa ne kii ku am sëriñ la de boo defee nii Google. nga bës lien bi xoola mais xanaa lien bi dafa amul lien baa ngi nii xoola xool ni lay def <laughs> ah man de euh, ton sa lien bi est-ce que ñaatam effacé wu ko wala nga yónnee ma ko ci sama whatsapp Sénégal bi 77 641 vingt 24 bi c'est bizarre ah dama war a dem nag de yónnee ma ko ci 641 vingt 24. parce que mi ngi nii day bañ fu nga yónnee ma ko parce que foog ma xam ñaatam bi quand même ku la porté plainte kay <laughs> dinañ la wax kan la parce que ma ñaatam bi bëgg naa xama non yow tamit mambay kay deux cent millions dina ko jël si yéen tam gars yi lu tax mambay ngeen ko jël <laughs> naan ay jamais du ko def dina ko jël si par A ou par B mambay dina jël si deux cent millions justice am na voilà justice am na àtte nañ justice am na teg nañ fi ay vraiment magistrature ay magistrat yu loyal yu digne yu libre yu autonome donc na ñëw na ñëw réclamer deux cent millions mambay ñëwal réclamer say <laughs> deux cent millions soo ko jox ko am jox ko ko mais Sénégal la la koy joxee de doo ko joxee feneen amul transfert amul dara ñëwal Sénégal bi nga xam ni fa la justice am nga ñëw réclamer say deux cent million voilà man loolu laa gën a gis bul jël kuddu jàmbur bul jël kaasu jàmbur ñëwal justice moo la ko daf la diffamé am nga deux cent million Sonko moo la ko amel kaay jël si ko voilà bul daw fenn ñëwal jël si ko voilà te man gëm naa ni yow yaa nga ko wax gor nga gar mi nga géree nga yaa yaa nga wax fii gor nga gar mi nga géree nga nee nga doo daw loolu moom yàgg nga ko fi wax booy tagal nañ la fi vaar nga ne doo daw dee la gënal daw loolu moom maam moo ko waxoon nee na moom euh, naar bu sax sàpp la dee ko gënal daw donc Mame Mbaye du koy daw Mame Mbaye du koy daw tey te Mame du koy daw suba Mame ñaar dina ñëw Sénégal jël si deux cent million loolu moom na leen leer te Mame yow damal nga jël say deux cent millions voilà justice am na damal nga porté ko plainte mu jox la deux cent millions yi point foofu la bul daw bul dem feneen yaa ko yàgg wax voilà gars yi nee nañ matal nañ cagnotte bi waa Pastef def nañ kañat ba mu mat deux cent millions demal nga jëli say deux cent millions loolu laa lay conseillé bul daw bul dem surtout ñëwal dellu si dafa ñëwoon dafa ñëwoon Canada vacances day na dellu incha allah jël deux cent million vraiment justice am na Sénégal Mame Mbaye jël si say deux cent million Mame Mbaye dellul del jël si say deux cent millions voilà Mame Mbaye dawal dellu su jël si say deux cent million waxoon na ko de man Mame Mbaye nag naa lu mu wax da koy exécuté lu mu wax da koy exécuté man géré laa garmi laa bañkat laa Sonko deux cent millions la ma yoral damay kër këram génn ñaari jabaram yi dàq leen ci mbedd mi hypothèque ko kudd même kudd moo ko fekkee dama koy ramassé ramassé kaas ñuy ndékkee pot de fleur yi dama koy yóbbu voilà daj bunt yépp laa jël donc kooku waxuma hypothèque kër mais kër gi la jël parce que boo duggee cib kër jël morcé fobeere ya jël morcé ménage ya jël bale ya ah jël rama ramassé jël kuddu ya kuddu yu ñuy añee mais kuddu sonko yi sax <laughs> maam bay bàyyi ko maam soxor nee na kuddu yu ñuy kuddu yi ñuy ndëkkee xale yi di ndëkkee da jël jël ay jabaram génn ci biti ak ay doomam <laughs> ay laay lay ndax cent millions lu ko fi jar maam bay jël maam bay ñëwal jël ñëwal gars yi dajale lañ deux cent millions yi balaa ngaa ramassé kuddu jàmbur yeeg kaasu jàmbur yi ndëkkee génn jabaru jàmbur yeeg doomu jàmbur yi ñëwal waa Pastef dajaloo nañ deux cent millions du leen boole ñëwal Pastef jox bi daara yi la ko jox daara yaa ngi fi xiif daara yi yooyu noonu mu bëggoon jox xaalis bi ñu ngi fi xiif bay bëgg a dee ñëwal jël deux cent millions dajale nañ ko jox ko daara yi <laughs> yàlla fay la loolu xéwal la daray àdduna jarul nga nga dem sa yoon bañ a ñëw jël si sa xaalis ñëwal justice am na Mame mbay ñi ngi lay wow nga ñëw jël si sa xaalis pas parce que dajaleel nañ 200 millions yi Sonko dina la jox say 200 millions nga a hypothèque nga ñëw jox ko daara yi c'est tout. donc voilà kii lu mu waxati waaye bon yónnee ma affaire bi en la journaliste SNM <laughs> d'accord mais yow kon kii moom ñëpp la El Hadj la journaliste. SNM ñoo dàq initial fii Sénégal Sénégal nag nga gis ay <laughs> Sénégal journaliste yi dañoo <laughs> dàq initial waaye yow boo demee bay initial mais bàyyil yow nga ne am nga ay information yu la wóor ngay initial mais sa lan moo tax sañu Sénégal bi bëgg bëgg journaliste yi bëgg initial OS SMT AAI ST sawaay kaas gi am na café soxlawul nga koy initial kaas gi am na kafe kaasu moolaa la moolaa mor gën mais kaas gi am na kafe kaasu mn kuy mn na hmm, kuy mn kan la kuy mn na yéen journaliste Sénégal lan moo tax ngeen ragal lan moo tax ngeen sonnal doomu aadama yi di wut information di ko jox sénégalais yi te amuleen fit wax yéen a dàq initial fii non Sénégal bay lépp lañ war a réformer lépp lañ war a réformer Sénégal fépp ay metti la journaliste SNM ki ki ki ki nan lañ ki man soxna naata mbay la et El IF El Ibrahim Ibrahima IF mooy lan El Hadj Ibrahima lan fay gars yi jàppale leen ma <laughs> moom moom la journaliste yi la journaliste snm elage point f ku xam léegi kan moo xam information bi <laughs> booy tons euh, grand tons njaga attention de moo mootul ñu porté la plainte de parce que yow tam ku dëgër fit nga nga fekk fu ñu bind la journaliste snm nga ne eh, soxna naata mbay nga yow journaliste bu la bindal lii sax amul fitu bind tur bi nga dem copier yow yónnee ma ko tons moytu man bëgguma duggaat benen front buñ la fi porter plainte ma fi nek libéré Ndiaga Thiam libéré bëgguma ci lool nak dama son ci libéré vraiment ay atta a ngi nii may libéré libéré jappalé wara rek comme ki la bindal li amul fit wax la ñan la ba lay dafa lay initial yow buñ ci dugg buñ fi jël bu ko bu ko bu ko identifié wu ben tour jambour nak libéré gi dama ci sonu jappalé ñu rek jappalé ñu togal foo ko non yaang ci jamm togal buñu duggal ci problème libéré 2021 ba légui ñi ngi libéré te bugguma jiitamaat combat libéré sama nijaay libéré njaaga caam ñu naan fekk yaa mu indil problème bi comme journaliste bu bind dafa initial génnal ci loolu génnal ci loolu génnal le gén génnal ci kenn xamul kii li muy wax ne la SNM et LHIF am na ko am na kuy tooñaat am na ko ne Ibrahima Fall la <laughs> am na ko ne Ibrahima Fall bu bu fan bu ITV léegi nag lii lañ leen di porter plainte ngeen naan dama koo liir ñëwoo journaliste mu ne la man bindu ma damaa bind SNM ak LHIF se sont mariés en en mars deux mille vingt après trois ans de mariage un garçon. de deux ans, le couple est au bord de la rupture. La première a, déposé une plainte contre le second. Après avoir déclenché une procédure de divorce au niveau du tribunal, d'après les échos qui parlent de cette affaire dans son édition de ce lundi, non content d'avoir exercé des violences verbales, psychologiques et physiques sur sa ex-épouse, d'après cette dernière, LHIF la harcèle et salit la mémoire de sa défunte mère. Le journal rapporte que LHIF n'est pas la seule cible de la plainte déposée kon qui moom ñëpp le déposé ah ok kon qui journaliste cible de la division spéciale de la cybersécurité par la journaliste moo déposé plainte pour menace diffusion sur les réseaux sociaux Ousmane Tounkara est également visé qui qui visé na ñëpp pas <laughs> visé na ex jëkkëram Ousmane Tounkara man boole na ma ci Je man histoire bi manqué doo lire la même source précise que la plaignante reproche à l'activiste basé en France Ousmane Tounkara nawul France de hein cëy waay journaliste la même source précise que la plaignante reproche à l'activiste basé en France de s'être de de s'être ligué avec son épouse pour salir son image Tounkara Tounkara musul que France cëy waay man tul journaliste journal je suis yi dama journal journal journal la yor ak la même source précise que la plaignante reproche à l'activiste basé en France fan France à New York <laughs> France New York France <laughs> kon man man xaw York, New York bu France <laughs> de s'être ligué avec son époux neen dafa négocié dafa waxtaan pour salir son image Tunkara de de New York France selon <laughs> l'accusatrice fait trois vidéos dans lesquelles il affirme que la journaliste a bénéficié d'une promotion canapé dans le groupe de presse où elle travaille il aurait en plus menacé de publier ses données personnelles donc mais mais le monde Tunkara man histoire man maa dogo a lire <laughs> man kon nak ki jàpp journaliste soxna nata Mbaye waaw léegi nag naa Naata Mbaye nag moom du mi ngi TFM ba léegi mi ngi TFM ba léegi non dina contacter ay ay dirigeant am dina dana ma wax ba xam man lan laa ko def ak kañ laa wax ci moom ak fu mu ak kañ laa wax man ay mariage am man man yii duma ko traité mus ngeen gis may traité Modou Xulle ak Faat Ndiaye mus ngeen ma gis yooyu ñu grand Ousmane Tounkara ñoom ñooy traité yooyu ñoom yii ay kaa traité man damay am dëmm bu may rëbb ma fekk ko ci caga ji na ko dong jala jalaale caga ji boole yóbbu leen dig ne Sénégalais ñu ngi nii jàpp naa leen dëmm bee ngi nii ñu ne kan la man Antoine ñàkk ñoom foo ko fekk maa ngi ko fekk fii ci Dior Diagne ma kër joor Diagne laa ko fekk muy dóori kaasam ma jàppale ñoom ñaar ñëpp génne kii domage collatéral la amee mais kii dama ko topp donc man lii man kon soxna naata mbay nii tojul fenn bu ma fayoon sax du ma wax ci moom parce que ñam ñaar ñëpp amuñu njëriñ ci askan wi yoruñu alawul askan wi donc man yii du samay tem yii du samay tem vraiment soxna naata mbay du samay tem LHIF du samay tem xaw ma leen sax donc <laughs> ku ma ci plainte danga maa tooñ gars yi leen ku may plainte ci yii danga maa tooñ yéen ñëpp xam ngeen ni Mollah du nekkul ci tamit nekkul ci tamit rëbb dëmm nga dàqe ma cuucu fay topp ma cuucu fay fekk ko mu yor xaalisu xaalisu askan bi toog ci caga ji di noos di leen jëndal ay oto di leen jëndal ay vélo di di di di maye foofu xaalis nga ne ko donget yóbbu ak da dangaa collatéro bi la ko kaay kii li mu la jox ba nga jënd ci oto moomu ko kii lim la jox ba nga jënd ci lal bu un million moomu ko kii lim la jox ba nga jox sa yaay mu mu mu wut ci kër moomu ko kon kaay ko association de malfaiteurs noonu da lay toppee donc man musuma toj tam yi voilà voilà ki tux yàmba ak ki toog ak moom ñoom ñëpp laay yóbbu ki tux yàmba ak ki toog ak moom baa maa xam tux naan tuxut ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp laay yóbbu dama leen fekk ñuy dox xëy na juin bi daa fekk dama ko fekk ci kii mais kii toog jàkkaarloog moom xëy na moom tam daa jox jox tiri tiri paas donc ñoom ñaar ñëpp laay takk yóbbu mënuma ramas jël kuy tux yaa mbaa nga toog moom ma bàyyi la fa taw mënul ne yéen ñaar ñëpp laay donc noonu laay rëbbee dem mais vraiment man tamit ku xool xam ne man tamit mosuma koo wax man dama liñ ligne de ni may xeexee thème yi mosuma ci wax donc kii kii de dafa ma porté plainte mi ngi nii de dafa maa porté plainte de <laughs> donc donc donc mom hein Mamadou sek daf ma naron dal sakali pexe mo Macky Sall quoi à travers ay femme <laughs> kon Mamadou sek dal mom dafa fasiyene won lek ma quoi mo Macky Sall quoi dañ ma fasiyene won lek ci ay fen <laughs> yàlla moo leen ëpp doole jaat Mamadou sek mom non koku warutul dundu lu ko dese ci adunaam ci jamm nit munul gën a yées Mamadou Seck lépp luy te nag booy naa leen waxal dara na ngeen gars yi dañ leen war a topp de képp ku liggéey ci mbirum Sonko liquidation barke alxuraan laa leen waatal barki laa ilaha illa huwa lazi xaw ma lan mooy waatkat yi lu ñuy waat ne temps yi temps yeneen waat yu bees moo am léegi day man dama commencé jàng ci gars yi génn ci laay bi dañ laa ilaha illa huwa xayul xayum xaw ma nu ñu ko waxee daal ay genre temps yeneen ñun ñun ñun ñu njëkkee billaay wallaay wa taala yu amoon mais léegi am na yeneen waat yu génn bees mais nag ci waat yi bees yi laa wax parce que day adduna day dox barke laa ilaha illa ci waat yi bees yi mooy charlatan yi ne ci internet yu ñuy wax barke laa ilaha illa huwa kii musuma wax ci moom lësi musuma wax ci kii xaw ma ko waaye Mamadou Seck ak képp ku liggéey ci mbirum Sonko pour liquidation ay millions nga yor ay millions déglu leen amul procureur bu ci yorul ay millions ay millions ay magasin wu xaalis lañ yor paquet ko nii paquet paquet paquet paquet tegale ko paquet paquet paquet paquet paquet ay un million ñu def ko plastique lañ leen jox bépp bépp magistrat bu musa liggéey lu salte ci Sonko ci liquide ay millions lañ leen jox liquide liquide amul ku ci yarul magasin xaalis de Mamadou Seck ah ki nga xam ne moom mooy Abdou Karim barki laa ilaha illa huwa ils sont liquides ñoom ñëpp ngi yor ay millions liquide lañ yor paquet paquet paquet paquet de un million ñu élastique paquet un million ni lañ ko yoree ñoom ñëpp amul journal amul amul benn procureur wala juge bu liggéeyul ci pour liggéey ci affaire Sonko bi te amoo ay millions ñoom ñëpp a ngi toog moo tax bu ñu leen di reetaan bu leen di reetaan barki laa ilaha illa xayruhu bu ñu leen di xàqataay nii dama ne ñii duñ torox kii nii il faut ngeen ñuus leen moomu di sekk ay millions la yor yu ñu paquete liquide ay millions ay ay ay buñ ko doon jeex di ko tuur du jeex ñoo ñu ngeen yóbbu Tamba di reetaan bu leen neexee ñu def fa cent ans seen dund du tànk kër yi dañ koy climatiser oto yi dañ koy climatiser bureau yi dañ koy climatiser ngir leen di reetaan ay millions la ñu yor ku ci nekk yaa ngi yor ay paquet liaas ñooñu buñ leen bàyyee fii jàmm la ñu am de dañoo war a dem ci kaso bi Mamadou Seck wala rëcc kaso bi Abdou Aziz ab euh, Abdou Karim waru rëcc kaso bi dañ leen waxante dëgg Sénégal dafa jot après buñu paré li ñu génn di marche pour ñu japp ñooñu parce que ñooñu ay criminel lañ ñoo fi taxaw bu metté dem jël ay nit di fénal buñ ko daxé ba daw ko buñ ko daxé ba daw ko mi ngi yor benn mine antipersonnel benn bombe atomique ñu dax ko ba daw ko moto mu sandi bombe bi mu sandi bombe xar bi ñu wër ko nomba mu wër dugg ci suuf auto bi mom mine minna minna combat minna marche minna na minna bi minna muñ ko daxé ba daw ko mu daw après xar bi recc ñu japp xar mi ana xar bi ana xar jàmbur bi buñ né ginaaw suba la tabaski ngeen yóbbu xar mi jàmbur bi ni ngeen ko tabaské <laughs> ni ñu ne wara xaru jàmbur bi ñu ko daxé ba daw ko après mu taw mu ki ñu ñu xar bi wa xar moomu ba léegi <laughs> kan mo gis xar mi wa ana ana xar kilinte nga xawma lan ana xaram bi mbir na guerre mbir na front mbir na man wa man non man mooy waxuma dama ne ano xaru kilinting bi kilinting xawma ana xaram ba fu xar ma dugg kan moo soos xar mi kan moo soos xaru kilinting bi ana buum ba ana ñeneen ñi buñ ko jàppee ñeneen ñu mu àndaloon dañu seey terroriste yi seey ci dëkk bi ana ñu ñoom ñëpp ay millionnaire lañ Macky ay million liquide la leen jox liquide maa xam Diallo euh, Hamidi Diouf ak Abdou Karima képp ku liggéey képp parce loolu dañ ko doon teg ci table bi ay millions yi nii liquide cinq cent six cent millions mi ngi nii liquide kan mooy nangu ñi def nii am ku yëkkati benn Abdou Karim bu yëkkati Abdou moo yëkkati woon loxo ne day tëj Sonko abdou karim mo yëkkati won loxone day tëj sonko mo taxit bañ ko woyé gendarme bi lu mu tudd cheikh sar gendarme cheikh sar mu nekkon bu nekkon kolawan bo xalem bu jigen bi yoron telephone bi tak ñu ñu wor ñeneen ñi neewon ci biir auto bi buntu keur sonko ñoo wo cheikh sar cheikh sar na tak jël telephone am abdou karim Abdou Karim saaga la ci teg nangam tànn leen dama tëbb leen ko loxoti leen ko Cheikh Sarr ne à vos ordres ñu tëj ñu jël ñaari cargaison gendarmerie booy to mel ni kuy wëri buy dem jëli criminel takk booy takk seen tuba yi dal yi tugg ci oto yi ay miir comme ay ninja di naaw <laughs> Abdou Karim ay millions la ko Macky Sall jox mu dem dóor Sonko ci kaso bi kat tëj karak karak ñëw gisante ak Macky Sall guddi mission accomplie waaw mission accomplie waaw ah, ko ko ci kaso waaye loolu tëj naa nu mu la noxoon man la Abdou Karim ah waaw gu ana chef de protocole bi ah euh, joxal ma ko foofu cent millions ah, lëkk doo ok waaw ah, yow suba suba incha allah nii kooku ne farax dem ñu paquetal ko xaalis Abdou Karim ne ko faj mu Abdou Karim lu mu yor ci xaalis boo leen ko fi jëlewul ba buy dee du torox xaw ma nag yow man xiyaam nag day torox mais fii boo leen ko ci jëlee du torox nii ñoom ñëpp nii lañ ko defee Cheikh Sarr moo woote gendarme am la fi yónni woon ñoo ñoon duggoon ci oto ba ñoom ñoo woo Cheikh Sarr commandant Cheikh Sarr woo Abdou Karim Abdou Karim dóor dem encaissé dellu ñoom ñëpp ñëpp ñoom ñëpp ay millionnaire lañ ci ci alal gu weex tal lañ toog ñoom ñëpp magistrat yu liggéey ci saal buloo ci affaire Sonko ñoom ñëpp ay multi millionaire lañ mool ma maa la ko wax barki laa ilaha illa huwa lësi ci waat yi bees yi ñu ngi toog ci ay million ku yaakaar ne Tamba googu day tax ñu torox <laughs> seen lépp la ñuy climatiser alal la yor alal dañuy xeeñ xaalis kenn du du <laughs> waaye yow itam nan lañ ko doon defee dañ doon xël dañ doon xëy rek déedéet boo leen seetloo affaire Sonko am na ñaari yoon magistrature niñ ko changer ñaari yoon affaire Sonko ñaari yoon lañ changer magistrature teg 2021 kan mo fi nekkon doyen des juges ndem si yalla si bu mu dee Macky Sall woote ne leen dañuy dañuy changer magistrature bi ok léegi il faut ñu xol ñan ñoo accepter pour def sal boulot bi mais ci lañ indi ay ñom ma am jàllo ma am jàllo recruter na je déclare damay rajaxe waaj ñu ne ay ci bismillah mu roofu maa xam jàll engage daf engagement am Abdou Karim euh, ki kii moo fa nekkoon euh, euh, sama grand bi kii Diouf waaye yow xanaa dañ maa misik Samba Sall moo dee ñu ñëw ñu ñëw indi maa xam maa xam ñu ngi ko jëlee Ziguinchor mu ñëw engagé wu na aca ñu jëlee ko Ziguinchor indi ne ko pare nga pour Sall bu mun a waaw ñu indi am Hamady juuf <laughs> Hamady juuf yàgg mànde taat lay def di di di dàmp euh, euh, bonam bon Hamady Diouf bàyyiwul sax lu ma leen waxoon jabaram waa Rufisque la ñaari doom yi jigéen la yor Hamady Diouf day dàmp jamono jooju da jabaram da koo bett muy dàmp euh, mindaanam mu gedd yanu ñaari doomam ñaari doom yi rek la ñuy làkk mu yóbbu leen Rufisque Hamady Diouf nekk këram mandi tëddee mindaan yi mandi tëddee mindaan di dóor rek daf tat nag Hamady Diouf ñu indi Hamady Diouf kan la woon bu leen fàtte sëñ Basirou Gueye de eh gars yi gars yi sëriñ Basirou Gueye moo encaissé ay millions moo ak Samba Sall Samba Sall dee sëñ Basirou Gueye encaisse di dóor di dóor di dóor di dóor ñu mii na ko of nag ñaar ñoo ñu dem premier équipe bi dem ñoom ñëpp encaissé kee dee kee encaissé ñu wat benen équipe acca ñu ne hamadou Diouf collaborer collaborer ak ki nga xamni moy Maham lu hamadou Diouf ma Maham sel. rang wutul rang gëggën rang bo ñeer ñu ne ma da dem bu tek ay ki ne ci ginaaw kan la <laughs> Mamadou sek mu Moussa ndiaf sanni ke day ke day vir ke day périer rek dor la carré bloqué tël la Mamadou sek rek mu mbeuk sanday ci kasso aussi <laughs> va ñu indi beneen patriote kay kay périr ki keneen toj dënn rek sànni muur sa muur sec go te aussi jox nii lañ ko doon jàppee pat bopp rey ñu bëri kan la Maham Diallo juuf Diouf euh, Mamadou Seck <laughs> ku dee Mamadou Seck ko la rey kee day péri kee da lay euh, euh, lu mu tudd amara simba kee da lay amara simba booy ñi ñi yàgg ñi xam nañ kenn lay amara simba Mamadou Seck kii moo lay amara simba euh, euh, Omar maa xam Diallo moo lay euh, teg la dënn sànni la Mamadou Seck Mamadou Seck bëkk sa ndey ca kaso ba <laughs> ñu fàtte aussi va noonu noonu noonu noonu noonu noonu noonu Macky na yee ok xam nu Eh, yow yéegal montel eh, kii eh, Mamadou Seck kii Hamadi montel ci kaw montel montel montel <laughs> Mamadou Seck montel ne mun naa la indi sam benn booy ak sadik ma nga sala am na booy bu gën a sadi <laughs> sama booy boobu ta fépp la ànd fépp dañu booy boobu dalay lekk te du ko yëg Mamadou Seck mais Hamadi mooy présenté <laughs> moo présenté Abdou Karim moo ne Macky Sall abdul karim ini kima nii ma karim job, <laughs> mu yàgg <laughs> eh, man de moom tamit wala karim man booy kalala boy booy coofak koo bëgg ma lekkal la sonko dama koy war xon na tay ko oh lol mu ko du amul benn borom non nah, yow ya, man man nah, man amul benn man amul benn jabar man damay biiralaatee di def rek <laughs> man ya. kaw la lu ma am ci doom damay biiral rek man bañ naa ko ma damay biiral di def rek ngi man abdul Karim job. <laughs> mun nga ma ko lekkal waaye dama koy lekk day ko Sonko dama koy lekk day ko <laughs> ma ko oh ok amul problème yow kon ko ah boo boo boo defee loolu ma jox la cinq cent millions loolu loolu lu dara <laughs> lekk day ko waaw ah, dayal ma ko gis na ko waaye toog day ñu remplacé foofu la ñu remplacé na tak ñu ñu yóbbu ñu ñu ñu yóbbu ci kaw montage parce que milieu défensif loolu def mu def milieu offensif ñu montal ko mu yéeg ñu xëcc Abdou Karim booyam teg <laughs> Abdou Karim di GG bi lekk Sonko amul loo leen di taf ba duma lekk Sonko taal leen dëkk bi ba mu jeex damay lekk Sonko xool booyal leen ko ba mu tàkk rey leen sama baay damay lekk Sonko rey leen sama yaay damay lekk Sonko wan damay xool xaw mu lekk leen mais man damay lekk Sonko 500 millions du ma ko bàyyi damay lekk Sonko warax ko dak amul luy nit munul fexe ba taal dëkk ba du ma day Sonko dama koy lekk dama ko day noonu la ko dem parax parax mu ñëw commencé tëji koñ tëj bloqué ay koñ mu ñuy waxati mu yanu ay nit sa effacé indi ay nit gaare ci buntu kër Sonko provocation moo tax jour bu mu koy yóbbul ay nit <laughs> keroog keroog sa waay Abdou Karim fecc na ci bureau billaay wallaay fecc na ci mbiram bu ko bu ko kii Cheikh Sarr commandant Cheikh Sarr wooyee na ko sa waaye jël na téléphone booy bi <laughs> arwatam kii tey ca rek ndaw ma lekk sama tey ma lekk sama ma lekk sama ay waay yób allo allo waaw Cheikh Sarr yób yóbbul ma quarante quarante cinq auto Euh, twenty four seven ok kon nine millimètres la na yóbbu leen lépp na ngeen naaw para tëb leen miir yi toj leen bunt yi rajaxe leen tëbbal leen ma waa ji indil ma ak en aucun cas bu leen ko fa bàyyi nag dama ne euh, sol yóbbu leen ninja yi leen ninja yi na ngeen naaw na ngeen tëb yéeg leen ci terrasse yi ak étage yi fexe leen mu indil ma ko wuxoo ah ok avasor fekk moom cinq cent million yi lay xaar <laughs> nga gis gars yi dem tëj caméra yi kat kat ci kaw naaw para fukk fukk ndax benn ab portable boo xam bii saxu ñuy naaw ko piw piw loko di Sonko ah, a na ko dangit Abdou Karim o oh, oh, oh, naa ni dinaa la warax yow xamoon nga ni dinaa la warax yow Sonko xamoon nga ni ñu toog bureau xamoon nga ni naa la warax yow sama pakkan laa teg dama lay warax yow xamoon nga ni naa la warax yow lu yow munoo muus ak a waale ba du la warax yow xamoon nga naa la warax moo tax ma dool la corruption de jeunesse ñu amul existé wul man maa la foog ma lekk la pour mu am 500 millions yi saa yi mënuma la mënuma 500 ah, millions yi ndax du dama lay lekk am 500 millions yi. dama lay war a yoo xam ne dama la war dama lay war a noonu mandat dépôt tëg tëg mu avancé mu moo di sekk mbëg rël mu dugg ci kaso ba <laughs> ñu toog na tegale seen tànk ñu euh, waaw mujj naa ko dugal. ah dugal nga waaw man dégg naa ko kon mujj nga dugal Sonko waaw oh, ah, dugal naa ko <laughs> parce que waxoon naa naa ko lekk lekk naa ko. waaw waaw waaw léegi wuyu ma am na chef de kii bi waaw joxal ma bi yow joxal ma ko 500 bi yow boy formidable ah formidable ah. après daa yónni ñoom Antoine ñàkk jom ñoom Ismaïla mën a dóol ñu def conférence ak policier ak gendarme yi amul benn problème yow moom naa ko de. le lendemain ñu gis procureur yëpp toog ñoom Abdou Karim génn ay feuilles nag <laughs> il a euh, yow arrêté arrêté euh, bu ñu ñëwee ka këram dañ fekk benn bombe atomique benn bombe nucléaire ñu ñëw fekk portable bi euh, yóbbu na ko donc bu mu ñëwee Sonko ne leen du ma dem ma ne ko day dem mu ne ma du ma dem donc ñu kii ko donc il a été attrapé pour incitation à la demeure plus attaque meurtrière plus bombe atomique en en armement très sophistiqué donc bu ñu ko jàppee ñu xool gars yi nag ba xam li ñuy wax napp napp journaliste la doo xool nga ñoom ñëpp dañuy noppi waaw euh, donc donc bu ñu ñu jàpp ko euh, euh, incitation à la kii plus ñu jàpp ko bu ñu ko jàpp donc ñu xool nu donc c'est extraordinaire donc vraiment kër gi bu ñu ñëwee daf ñu naroon rey mais jàpp nañ ko donc il a été neutralisé neutralisé boo xam ne vraiment bu ñu ñëwee ci kër gi nee nañ ko ubbil mu bañ ñu ñu ñu ñu yónnee bat bi ñu naaw daf ay avion ñu ko jàpp ko donc wala jàpp nañ Abdou Karim Paré Hamadi Diouf ok donc on continue toujours ce processus bi nga xam euh, Abdou Karim d'accord. ko donc euh, bu euh, attroupement provoqué provocation d'un crime soit un délit vraiment tous punis par le cas où cette provocation n'aurait été suivie d'effet donc d'un an à cinq ans de prison 25 Sonko de nos côtés, vingt millions à 500 millions de francs CFA amende article 307 euh, bis toute personne qui expose euh, autrui à un risque immédiat à un mort et de blessures euh, de nature à un travail. une médiation euh, mutation euh, extraordinaire donc euh, toppee nañ ko li nga xam ne dëgg dëgg dëgg million buñ ko jàppee dàqe ko ba daw ko ñu poñe ko indi ko donc doon révolté wu donc loolu lépp nii lañ doon di ko paasante nag keneen ki ñëw yeggali <laughs> keneen ñëw yeggali waaw donc bu Abdou Karim wax ak sama grand kii xaw donc lañu continuer toujours ci li nga xam ni moo moom la gouvernement Sénégal euh, toppee Sonko euh, euh, waaw il sera puni de réclusion criminelle à perpétuité donc moom maanaam man Sonko lii mu nekk ni moom woote meurtre woote gat sa gat woote nañ songante nañ ragante song la ma la donc loolu lépp mun na cee tëdd réclusion criminelle perpétuité Donc, euh, euh, article 73 aussi, le complot ayant pour but les crimes euh, mentionnés, à l'article 72, il a été suivi d'un acte commis ou qu'on prononcé en matière d'exclusion sera puni de la détention criminelle de 10 à 20 ans. Donc, Sonko, Diapolani, Passef, dissoudre Nenko, Sonko, Tej Nenko, Tchouan Tej Nenko, nous, Nyop, Te Mounen subir deux ans de prison ferme, acte d'autres Mbokoti, donc, c'est là, donc, ni Dal, Sonko d'autres Lenjitechi, Djamay du leen donc euh, Macky Sall moo fi nek wala nitam donc euh, ñoo ñop li <laughs> lepp dund nañ ko fi nak li lepp dund nañ ko fi moo tax man gëmutuma Sénégal dara mun na fee ñëw ba jaaxal ñu non c'est ñun li may wax ni lepp dund nañ ko fi <laughs> est-ce que man dama ragal yowal xiyam ñu dem sax yalla di ñu woon ay affaire ñu ñu toog di seetaan nii <laughs> malaaka naan maa mais xana ci Sénégal la bu len bett de dama ragal yomal xeer ñuy yàlla di jën yanu gars yi di sànni safara ñu toog di seetaan di reetaan naan booy booy naka Dakar neexoon na de wuyu Sénégal ba ma laa koy naan nii xanaa tiituñu eh, yàlla nii ay sénégalais <laughs> lu ne gis nañ ko ñii ay gis nañ ko gis nañ jugement bu ne gis nañ procureur bu ne gis nañ magistrat bu ne ñoom <laughs> yéen da ngeen mën a jommal sénégalais doo jomb yomal xeer am man ragal naa loola yow ma xeex non ragal naa gars yi di yuuxoo yo Sénégal yi toog naan ni di ree <laughs> xool waa ji ña nga koy romb de xoolal kay <laughs> ki ne safara la jëm <laughs> di waxtaan seen biir di ree ba malaaka yi jommi lu ñu traversé dëkk du lu ñu traversé non non non neexul ba neexul waaye lii mënatul amati non dootul amati moo tax ku bëgg a jommal sénégalais jomm jommi ku bëgg a jommal sénégalais jom bi ñu dem waay bi seen loof enam maawut réew mi metti woon na <laughs> te ñoo ñoo ngi dund ba léegi de ñooñu nag war duñ dund parce que fu ñu dund yàqu la ilaha illa huwa alxayul